Issegnan. Bonjour à de Sud FM Sen Radio. Sud Matin au sommaire, transmission communautaire du Covid-19. Le chef des réaménagements dans le dispositif de riposte après un troisième décès enregistré ce vendredi. Les horaires du couvre-feu pourraient ainsi être ramenés de 18h à 7h du matin. Les marchés sont déjà ciblés sur l'étendue du territoire. Opération de désencombrement hier au marché central de Kaolack, une vaste opération également au marché Castor de Dakar sous la supervision du ministre de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique. Malversation dans la de l'aide alimentaire dans ce contexte de pandémie. président Macky Sall dénonce un débat de bas niveau qui nous détourne de l'essentiel. La société civile et l'opposition réagissent. Rewmi à Thiès soutient que ce sont les actes posés par les autorités qui sapent la cohésion nationale. L'actualité internationale, la revue de presse avec Ndeye Marième Ndiaye pour compléter noo différentes éditions mises en onde par Alioune Badara Socé les titres en wolof El Hadj Malick Ndiaye asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi li gën a fës ci xibaar fas nañ ko faram fàccee bokk na ci nag wopp si di coronavirus ak li ñu duppee transmission communautaire yi nga xam ne kat kenn xamul fi ñu ko jëlee njiitu réew bi nag dàqul maanaam eh, xëccaat li nga xam ne rek moo nekk couvre-feu bi nga xam ne kat am na nit kenn ñàkk na bakkanam fële nag ca ci si kàddu yi mu ko rotal démb fële nag ci ab waxtaan boo xam ne ko seqoon ak ay télévision fële ca France ñu ngi nag xool bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne rek moo di marché yi am na sax opération déguerpissement désencombrement bu mag bu amoon fële nga xam mu nekk nag ca marché Castor bu Ndakaaru ki ko teewoon nag di ministre bi ñu dénk wàllu urbanisme ak tamit hygiène publique ba tey ci wàllu la wax ak li coow li am ci joxeem ceeb beeg oto yeeg euh, ne ay xalaat te Thiès nag réew mi ne kat coow yooyu moom mooy tax li nga xam ne kat moom mooy xàccandoor gi doon doon am ci wàllu bi dafay daal di dem loolu moo gën a fës ci xibaar ñu ko faram fàcce incha allah bi bu juróomi at lu jotee dañ leen di bàyyi ak programme 98.5. des titres que nous commençons par Sud Quotidien Mansour Faye en clair obscur nos confrères reviennent donc sur euh, la conférence de presse euh, du ministre euh, qui se prononçait sur l'attribution du marché du riz mais aussi sur le transport concernant les vivres toujours à la une de Sud Quotidien riposte de du Sénégal contre la pandémie du coronavirus Macky n'exclut pas le confinement nos confrères du journal

Pastef le chef de l'État Macky Sall n'exclut ni l'un ni l'autre à la une du journal Vox Populi pour endiguer les cas communautaires de Covid-19 Macky prêt à allonger euh, le couvre-feu de 18 heures à 7 heures du matin et n'écarte pas un confinement euh, total à la une du journal Tribune non maîtrise des cas communautaires Macky marche vers le confinement nous disent nos confrères et dans le journal Les Échos nos confrères nous parlent de ce volte-face spectaculaire du ministre des Transports, les chauffeurs de transport public euh, autorisés à conduire euh, sans un masque. Et à la une du journal euh, Dakar Times, accusation du GAIPES contre le ministre Alioune Ndoye, Saliou euh, trébuche. Nous terminons par le sport à la une du quotidien du sport Stade. Nos confrères nous parlent aujourd'hui euh, de la légende de la tanière. Il s'agit de Henri Camara, Mister Record. Il est co-meilleur buteur en Cannes avec Sadio Mané, recordman des sélections et des buts. Euh, seul Sénégalais auteur d'un but en or au mondial. Et Moussa euh, se rappelle aussi de Henri Camara. Sénécartour di société bi ñu gën a ràññee ci wàllu location oto ak dem beeg dikk bi ci wàllu tourisme xam nañ ko nu ko jekk ci gunge réewum Sénégal ci développement Sénécartour gis-gis bu bees ci wàllu dem beeg dikk bi. Sénécartour moo leen di may. li gën a fës ci këru yéenekaay dañ koy tàmbalee ko tulikaay bii di sud euh, sud quotidien tey jii nag daal di euh, xëyee euh, ci coowal ceeb bi nga xam ne nag moom moo fa sa fang fi mu nekk nii fii ci biir réew mi démb sax joriñ gi di Mansour Faye doon indi ay leeral jëmale ko ci wàll gi ni mel ba léegi ci xeex ga ñuy xeex jëmale ko ci feebar bi di coronavirus nitu réewum Sénégal Macky Sall di xam leen ne mun nañu dem sax ba tëj ñëpp maanaam daal kenn dootul génnati ci seen biir kër tulikaay bii di laas di ñëwaat ba léegi nag ci mbirum ceeb bi ndaxte mi ngi ñi xamal wax rek waaye am na ci ndaxte fa li nga xam ne moom mooy ca Koungheul ab responsable APR moom it daal dinañu koy jébal marché ci wàllu euh, ceeb googu culikaay bi di euh, critique moom nag nañu démb kon kii di Mansour Faye demoon na ba ca ministère de la santé ngir xool boppam nag ci li nga xam ne moom moo jublu ci coronari maanaam daal ci gi nga xam ne daal moom moo jublu euh, ci wàllu ceeb bi culikaay bi di 24 heures nañu kon dafa mel ni jiixi jaax daal am na ci li nga xam ne moom moo jublu ci wàllu marché googu wante it ka communautaire yi ma ngay tàmbale nag daal di ëlëm euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite waa grand place sax di ñu xamal ne ñu wàllu cas communautaire yooyu sax ma ngay tàmbali nag di bëri jullikaay bi di libération di ñu xamal ne cas communautaire yooyu ñu ngi fépp euh, fii ci biir Sénégal am na ci lu tolloog ñaar fukk ak juróomi commune euh, yu ko am fii ci mim réew loolu sama moo tax ba njiitu réew mi di xamle ne ngir wàññi ko nag faw ñu daal di gën a yokk couvre feu bi Abdoulaye Diouf Sarr di joriñ gi ñu gi yaram moom di xamle ne mën nañu sax wax ne léegi ñëpp dañoo masque cuulikaay bi di la soleil euh, moom nag di ñëwaat tamit ba léegi ci wàllu couvre feu bi nga xam ne mën na am ñu yokk ko naaj bi koy tàmbalee ci euh, juróom-benni waxtu ci ngoon mu jeex juróom-ñaari waxtu ci suba wala boog sax ñu def lu ñuy tuddee confinement maanaam daal kenn dootul génn ci ay këram cuulikaay bii di vox populi tamit ma ngi xëyee li ni mel di ñu xamal ne njiitu réew mi dafa mel ni nag ne pare na ngir war a mën a xeex ci ni mu waree lépp lu jublu ci wàllu cas yi euh, di tàmbale di bëri cuulikaay bii di tribune ne nag mag yi dafa mel ni sax ne moom wàllu confinement suñu moytuwulee nag foofu la ñu euh, dëgmal te it suñu naataangoo sax di ñëwaat ci ñetteelu nit bi nga xam ne moom moo ñàkk bakkanam ci feebar bi euh, di euh, coronavirus les échos ñoom la ñu daal di gis moom mooy ne ñii nga xam ne ñoom ñooy dawalkatu oto yi ñoom di dafa euh, mel ni nag ne may may nañu leen daal ñuy dawal te ñoom du ñu takk nag li nga xam ne daal moom mooy masque loolu moom dafa mel ni ne nguur gi moom moo leen ko may julikaay bii di Dakar Times moom di ñëwaat at yenn ci ay tuuma yoo xam ne nag dañ ko teg ci ndodd jëwriñ gi di Aliou Ndoye te ñu dénk ko lépp lu jublu ci wàllu napp tey jii kon

dara sosé du ministre de l'urbanisme et de l'hygiène publique malversation dans la gestion de l'aide alimentaire le président Macky Sall dénonce ce débat de bas niveau qui nous détourne de l'essentiel la société civile et l'opposition réagissent Rewmi à Thiès soutient que les actes posés sapent la cohésion nationale

Macky Sall s'est également prononcé euh, sur les supposées malversations qui entourent l'aide alimentaire Amadou Moustapha Dieng. Le président Macky Sall n'exclut pas d'étendre la durée du couvre en vigueur de 18h du soir à 7h du matin, et ceci pour briser la chaîne de transmission des cas communautaires. Il l'a fait savoir à nos confrères de France 24 et de RFI lors d'une interview. Certainement, avec euh, les, nouvelles, euh, les nouveaux cas communautaires, nous allons réajuster les du couvre-feu, peut-être remonter un peu plus, démarrer dès 18h la communication au niveau des communautés est très très importante. Alors si tout cela ne suffit de l'évolution, nous n'exclurons pas d'aller Il confirme le troisième cas de décès enregistré ce vendredi dans le pays. Au moment même où je vous parle, on vient d'enregistrer le troisième décès. En fait, euh, donc nous avons comme nombre de décès trois depuis, depuis tout à l'heure. Le président Macky Sall s'est aussi prononcé sur le tollé soulevé par les supposées malversations financières concernant l'attribution des marchés de denrées et de transport des vivres. Il se désole d'un débat aura des pâquerettes. Vous savez, ce qui est regrettable, c'est que lorsque nous attaquons des sujets d'importance, qu'on veuille nous ramener vraiment euh, vers, euh, disons, aura de pâquerettes. Euh, qu'on nous ramène vers un débat de transport, de vivres. Euh, Euh, et puis que vraiment cela puisse être relayé à ce niveau, j'en suis très désolé, mais vous savez, mais je peux vous simplement dire que tout sera mis en œuvre, d'autant plus que je viens de créer un comité de pilotage dans lequel j'ai décidé de mettre, euh, peut-être il y aura une personnalité indépendante qui va le diriger. Le président Macky après son appel de Dakar, réaffirme sa position par rapport à l'annulation de la dette des pays africains. La maladie frappe lorsque solidarité pour l'humanité réalité, quand même 365 milliards, ce n'est pas, à mon sens, quelque chose qui est insurmontable pour des, des pays donateurs comme ceux du g À l'issue de l'entretien, le président Macky Sall a indiqué qu'Hissène Habré, qui est actuellement transféré à son domicile, regagnerait la prison après le coronavirus. Amadou Moustapha Dian, ces accusations soupçons autour de la gestion de l'aide alimentaire Euh, donc euh, continue de susciter des réactions. Le forum euh, civil à Thiès estime qu'il faut que les principes généraux la bonne gouvernance soient respectés, même en cette en ce temps de pandémie. L'essentiel pour le forum civil de mobiliser les citoyens autour de l'essentiel pour l'équité, la transparence, pour donc lutter contre le Covid-19. Abdou Aziz Diop est le vice national du forum civil. par Babacar Sow. La polémique autour de la gestion des fonds liés au Covid-19 devrait servir de leçon aux différentes parties prenantes, notamment les autorités en pour qu'elles comprennent que, quelle que soit la célérité ou autre motif évoqué, leur démarche et action devraient être circonscrites ou encadrées par les principes généraux de bonne gouvernance, notamment la participation, l'équité, l'efficacité, l'efficience, la transparence, la redevabilité parmi tant d'autres. Cependant, il est aujourd'hui la confiance entre les différents acteurs Il urge aujourd'hui de mobiliser les citoyens autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi C'est de renforcer cet élan national de patriotisme et de solidarité. L'essentiel, c'est quoi C'est de mobiliser toutes les énergies autour de la riposte pour endiguer cette pandémie. L'essentiel, c'est quoi C'est de mettre en place des organes de pilotage inclusifs et indépendants, tant au niveau central qu'au niveau local. L'essentiel, c'est quoi C'est qu'au moment stérile et inutile que ces dix comités, surtout au niveau local, obéissent aux mêmes critères de bonne gouvernance. Et mieux même, si on pouvait inclure dans le fonctionnement de ces dix comités, pour ceux qui sont ciblés, les membres de ces dix comités, qu'on puisse inclure le principe du conflit d'intérêts, que les proches de ces différents membres des dix comités, surtout au niveau local, ne soient pas des bénéficiaires directs de cette aide. Autre élément aussi important, toutes ces actions, toutes ces mesures exceptionnelles prises visent un seul objectif, avoir un impact réel sur le vécu et le ressenti des populations, surtout les couches les plus vulnérables. Ce débat autour euh, de la gestion de l'aide alimentaire euh, va s'appeler la cohésion nationale euh, Rewmi donc le parti de Idriss Seck à Tivaouane indexe Mansour Faye d'être en train de saper la cohésion nationale après l'appel du président Macky Sall Distribution de l'aide alimentaire Covid-19, le ministre du Développement communautaire est en train de saper l'unité et la cohésion nationale que le président Macky avait réussi à sceller au niveau de la nation sénégalaise. Ce sont les termes de Bassirou Ndiaye, responsable départemental du parti Rewmi à Tivaouane. À l'en croire Mansour Faye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne devait pas baser cette distribution sur des considérations politiques. Une situation la dernière énergie par le responsable du parti Rewmi dans le département de Tivaouane, Bassirou Ndiaye. Le président Macky Sall Je suis de rassembler l'ensemble des forces vives de la nation pour la lutte contre le Covid-19. Malheureusement, Mansour Faye est en train de saper les fondements de notre cohésion nationale. En effet, la distribution des aides sociales est basée en priorité sur des bases politiciennes. À part la première génération, les titulaires de bourses familiales sont des militants de l'APR ou des sympathisants. Nous dénonçons donc avec vigueur toute distribution basée sur registre national unique qui renferme les bourses familiales. Nous prenons une distribution à tous les ménages en milieu rural. Une occasion pour Bassirou responsable départemental du parti Rewmi à Tivaouane, de plaider pour l'ouverture des marchés de bétail, ne serait-ce que jusqu'à 13 heures, afin de permettre aux ruraux de survivre. Tivaouane, Babacar Babacar Sow, euh, les autorités poursuivent la contre le Covid-19, euh, notamment euh, depuis l'apparition de nombreux cas communautaires, au moins 30 cas communautaires euh, Sénégal depuis le début de la pandémie. Les infrastructures marchandes sont ciblées euh, dans cette riposte. Obstruction totale de la voie publique, forte concentration humaine aux abords du marché central de Kaolack. constat euh, fait par les autorités qui ont lancé hier une vaste opération de désengorgement et de désencombrement et le préfet avertit euh, que ce genre de pratique ne sera plus toléré au marché central de Kaolack Ahmed Tidiane Thiaw que nous écoutons au micro de Mamadou Camara. Je pense que s'il y a un sujet qui fait l'unanimité à Kaolack, c'est la situation, disons-le, ne nous voilons pas la face, désastreuse qui prévaut ici au niveau du marché central. Avec quoi, disons, une occupation totale de la voie publique euh, par des vendeurs à la sauvette, marchands ambulants, des gens qui vendent à même le sol en faisant abstraction de la maladie, ce qui a pour effet de créer une situation de gêne et d'incommodité commodité pour tous ceux qui fréquentent le marché central de Kaolack. S'y ajoute maintenant une autre situation également déplorable, c'est la qualité quand même du stationnement des taxis. C'est très important le transport dans la vie économique, mais quand même à certaines conditions. Ici vraiment, d'habitude, c'est un stationnement collectif anarchique qui hypothèque l'intérêt général, alors que nous avons une rue suffisamment large pour que les usagers du marché immatriculés puissent en principe venir faire le, leurs achats au moyen de leur véhicule. Cette situation fait que quand même il fallait intervenir. Je dois également préciser à l'attention des personnes qui trouveraient à redire que juste après quand même le grand désencombrement sur l'axe de Nioro, nous avions déjà annoncé que nous avions l'intention, en relation avec Madame le maire de la commune de Kaolack, de prendre en charge la question du marché. Aujourd'hui, ces choses faites, sur l'axe centre commercial SGBS, SGBS Khaïga de façon très harmonisée grâce à une intervention combinée de l'autorité administrative, le préfet du département de Kaolack, de la mairie également de Kaolack, mais aussi du chef du service régional de la sécurité publique, appuyé aussi par le coordonnateur des ASP, avec une participation très remarquée aussi de l'UCG. Nous avons pu dérouler correctement l'opération. l'opération. L'opération quand même a été déroulée dans une démarche euh, participative. Une participation qui signifie une inclusion des services compétents, mais également des acteurs que sont les commerçants eux-mêmes. Et puis euh, une de désencombrement également au marché Castor de Dakar. Hier soir, les euh, de même que les excroissances de certaines cantines. Ces opérations interviennent dans le de la lutte contre le Covid-19. Euh, les opérations se sont déroulées cette nuit en présence du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène de Ndeye Mariam Ndiaye. Il y a lieu de mettre à structures marchands et nous sommes en train d'y travailler avec les communes, avec les investisseurs publics, réfléchir à un modèle de partenariat public-privé ou public-public entre structures publiques de façon à offrir à nos commerçants, à nos populations des équipements marchands qui soient à la hauteur de l'ambition du Sénégal et à la hauteur des risques du moment. Nous sommes dans des périodes très difficiles où pour rien du tout on peut infecter tout le monde entier, vous l'avez vu, arrêter toute l'activité économique mondiale. Et nous ne devons pas demain que ça vienne de l'Afrique ou que ça se propage euh, de façon sauvage. Donc, nous allons travailler sur le long terme, sur le court terme et le moyen terme, c'est ce que nous faisons, nettoyer, interdire, mais euh, la solution, ce sera l'investissement, la réorganisation et le changement de comportement. Après le marché Castor, quels sont les autres euh, établissements qui sont prévus euh, Tous les établissements de Dakar et tous les établissements du Sénégal. Maintenant, il faudra du temps. mais nous allons y travailler petit à petit de façon à éradiquer parce que nous sommes comme je le dis souvent dans une euh, dynamique de transformation sociale faire en sorte que les gens changent d'habitude de comportement donc ça va pas se faire en trois mois ni en six mois mais nous nous, nous y mettons en relation avec les maires avec l'administration territoriale pour avoir le résultat qu'il faudra Oui, quelles sont les décisions que vous êtes prêts à prendre, les mesures que vous êtes prêts à prendre dans euh, nous sommes dans une période d'état d'urgence. Les grandes décisions reviennent au chef de l'État. Il en a pris, euh, il quelques. Mais au niveau local, les maires aussi euh, prennent les décisions, prennent des arrêtés d'organisation, d'ouverture, de fermeture pour suivre cette voie tracée par euh, le président de la République. Le maire de la commune de Dieuppeul-Derklé réagit également. Rappelons que la commune fait partie des zones où on a enregistré des cas communautaires. Le maire de la commune se dit prêt à engager le combat pour stopper la propagation de la pandémie. Cher Gueye, le maire de la commune de Dieuppeul-Derklé avec Le marché, c'est pas la rue, c'est pas la voie publique. Je pense qu'il faut que les commerçants et les clients comprennent qu'aller Nous que les commerçants exercent leur activité sur la voie publique. La voie publique, elle doit être libérée pour que les véhicules puissent aller et revenir. Mais ce n'est pas fait pour étaler des marchandises. Et comme l'a dit tout à l'heure le ministre, nous avons eu à faire beaucoup d'opérations, mais je pense que à force de descendre sur le terrain et de faire des opérations, je pense qu'on aura des résultats satisfaisants. La commune de Dieuppeul-Derklé fait partie de ces communes qui ont enregistré des cas communautaires. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qu'il faudra faire pour éradiquer euh, ces cas ou bien lutter efficacement pour permettre que ces cas euh, à l'appel ministre la Santé. Il a été beaucoup question des cas communautaires dans notre pays et je pense qu'il y a un certain nombre de recommandations qui sont sorties de cette séance de On a parlé du port obligatoire du masque et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons donner des instructions aux euh, surveillants du marché de Castors pour que chaque commerçant puisse mettre le masque. Mais, mais demandez aussi aux clients qui viennent au marché de mettre le masque. Je pense que se protéger, c'est protéger la collectivité. Se protéger, c'est protéger la communauté. Il va de soi que si chacun et chacune met son masque, on pourra effectivement faire dans la résilience et lutter efficacement contre cette pandémie-là. Entre autres recommandations, j'ai entendu le président de la République dire qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont prises. Si au bout du compte, la situation ne changeait pas dans le bon sens, on va renforcer ces mesures-là et je pense qu'on n'en arrivera pas à ça. Il s'agit aujourd'hui d'avoir un comportement responsable. D'abord individuel, d'abord, ensuite collectif. Que chacun pense à soi, pense à ce qu'il doit faire. Cher Gueye, le maire la commune de Dieuppeul euh, Derklé à Castor, les populations prennent euh, les précautions, respectent les mesures barrières pour éviter la propagation du Covid-19. Reportage de Fatoumata Diallo à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis retenez que la pandémie a fait 150 142 morts et au moins 2,2 millions de personnes contaminées dans le monde selon le dernier bilan comptabilisé hier 17 avril. Les États-Unis ont franchi vendredi vendredi la barre des 700 000 cas recensés de euh, coronavirus. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Elhadji Malick Ndiaye s'installe pour le journal en jërë ngeen jëf mbokku déglukat yi asalaamaaleykum juróom-ñaar waxtu moom mooy soog a jot ci suba si. li gën a fës ci xibaar fas nañ ko faram-fàccee bokk na ci nag wopp si di coronavirus ak tamit cas ci wàllu couvre-feu bi a baax ak tamit hygiène publique de Abdou Karim Fofana ba tey ci wàllu xibaar ak tamit coow yi am ci joxe ceeb beeg oto yi nga xam ne koy yóbbu Macky Sall nee na loolu coow yoo xam ne yóbbu fenn la ñi nga xam ne société civile nañ ci ay opposition nag ca Thiès tam joxe nañ seen xalaat loolu moo gën a fës ci xibaar yi Aline Badara Socé moo nekk ci wàllu xelal El Hadj Malick Ndiaye ki waxoon ci xibaar yi ci bopp bi ak tamit li nga xam ne rek moom mooy euh, yokk nag couvre-feu bi jëlee ko nag 18 heures juróom benn waxtu ci ngoon si ba juróom waxtu ci suba si loolu nag Macky Sall ko su fekkee nag li nga xam moom la ñu duppee cas communautaire yi maanaam ñi nga xam ne kat xam ne fi ñu ko jëlee mu ngi wéy di law kàddu yooyu nag Macky mu ngi koy rotal dem ci waxtaan bi xam seqoon na ko ak ay yéenekaay nekk fële ca France muy RFI ak France 24 dañ ci ànd kii di Amadou Moustapha Dieng. dàqul yaatal couvre-feu bi diggante 6 heures ci ngoon ba 7 heures du matin président Macky Sall doon na ko xam ne niki tey bu muy séq ak waxtaan ak waa RFI ak waa France 24. certainement avec. Euh, waaw gis naa ne daal couvre-feu euh, bi mun na am daal di koy yokk diggante huit heures ba sept heures du matin bu fekkee ne ba léegi li ñuy xeex jëm ci wàllu coronavirus bi ak surtout transmission communautaire bi deltul ginnaaw. ensuite d'aller vers des mesures euh, plus fortes. ci noonu sax muy dëggal ne fu mu nekk nii Sénégal am na ñetti kaa yoo xam ne jot nañu faatu ci coronavirus bi le moment ñu ngi may xamal ne amoon nañu ñetteeli cas boo xam ne euh, mooy ki faatu ci coronavirus bi. rax si dolli président Macky Sall doon na it yéeg yàbbi ci coow li nga xam ne fu mu nekk nii mi ngi lëmbe askan wi. ne mu jëm ci wàllu kopparu bi ñu dindee ceeb bi liñ ciy laam-laamee. li mu gis daal moo di wax yooyu le waxu naxa sa xandang la te sax moom fu mu nekk nii ngir fay coow li taxawal na benn commission ngir saytu mbir mi ni mu ko diggee woon. ce qui est regrettable c'est que lorsque man daal jàpp naa ne coow loolu coow naxa sa xandang la jamono ji nga xam ne ñi ngi xeex coronavirus bi ñu ñu àndil euh, ay coowu euh, euh, transport vivre loolu daal maa ngi koy naqar bu baax a baax noonu sax man taxawal naa fu mu nekk nii benn comité de boo xam ne dinaa ci def ay nekk ci wàllu kujje gi ngir sax ñu gën a mën a saytu lépp jëm ci wàllu leeraange bi personnalité indépendante permanente qui va le diriger. geneen fànn président Macky Sall di wëy di wax ne réew yu am doole yi dañoo war a bal Afrique bor bi nga xam ne mi ngi tegu ci kaw ndoddam la maladie frappe. bor bi moom dañ ko war a dindi man gëm naa ne daal koppar gi nu mu mënti bu dee ay milliards et milliards la ko mën a baal as rawatina jamono ji nga xam ne dañoo jànkonteel xeexu coronavirus bii de. des pays donateurs comme ceux du président Macky Sall bu mu jeexal kàddoom jot na xam le ne Hissène Habré moom dañ ko génnee ci kaso bi ndaxte ay mesures humanitaires la ngir bañ mu daal dafay jëlee feebar bi di coronavirus waaye jot na xam le ne bu coronavirus bi jeexee Hissène Habré moomu le dina dellu te ndungu siin. mu nekkoon Amadou Moustapha Dieng ba tey ci wàllu la ñuy des ak tamit eh, ginnaaw Mansour Faye ministre bi ñu eh, bëgg rek moom na ñu sàmmonteeg nga xam ne rek moom mooy bonne gouvernance li ci ëpp nag maanaam gindi ñi nga xam ne nekk askan wi kàddu yooyu ko ratul moo nekk Abdou Aziz Diop nekk vice coordinateur du forum civil ci micro Babacar Ndaw wàllu yorinu fonds yooyu ñu jëmleel covid 19 mu nekk loo xam mënoon a xam ne itam gënul yaakaar naa jàngat bi ñu ci war a def mooy ñi ko seq ñëpp ku ne war na xool taxawinam mais rawatina ñi nga xam ne ñoom lañ ko dénk ñu war a saytu fonds yooyu ba mu àgg fa mu war a àgg ñooñu li ñu sént ci ñoom mooy yorin wu sell mooy yorin wu leer waaye du ay tontu li nga xam ne tey moo jàmp di farata yaakaar naa mooy ñëpp ànd pour fexe ba feebar bi bañ fee law paagaagal ko ba nga xam ne mu dem ba zéro cas la ñuy wax sa loolu pour mu am il faut que citoyen yëpp ànd mesures yi nga xam ni tey annoncé nañ ko digle nañ ñëpp respecté il faut état bi aussi foofu gën fa dugal loxoom autant jàppale ci wàllu dund gi baax na waaye jàppale aussi askan wi ci wàllu intrant yooyu muy jëm ci masque lu jëm ci gel lu jëm ci ay gants ba pare nit ñi mën a toog seen kër loolu farata rek moo leen di génne yaakaar naa suñ defee loolu muy geste barrière yooyu am comportement boobu bala nga naan naam ne fa loolu mooy li a jàmp li mooy fexe ba a wóoloonte beneen bi aussi mooy comité yi nga war nañ ko sam surtout comité de pilotage au niveau national ñoom ñu saytu force Covid 19 bi mu nekk comité bu indépendant ñi ci war a nekk nekk ci waaye surtout nag au niveau local foofu la ñu séentu ñu moytu coow li nga xam ne dégg nañ ko au niveau ci kaw a kaw ñu fexe ba am à la base bu ñuy séddale wala bu ñuy ciblé fexe ba comité yooyu ña ca nekk nekk ñu maandu waaye aussi ñu dugal ci benn principe principe bu conflit d'intérêt ña ca bokk képp ku leen jege wala seen ñooñ bañ nekk bénéficiaire direct ndax mënoo nekk juge et partie ndax lépp loo xam ni jublu nañ ko ci fonds yi ndëf laay la rek waaye daanaka du l'essentiel essentiel bi mooy fexe ba faagaagal feebar jëpp solo mooy fexe ba jëlee feebar nañu wax des ba tey ci wàllu joxeem ceeb boobu ak tamit ca département Tivaouane parti réew mi nag moom ànduñ ci li nga xam ne rek la kàddu yi ministre Mansour Faye rotal ñi ànd Idrissa Seck kat ne nee nañ Mansour fi mooy yàq bu baax a baax li nga xam ne kat boo jubee gi am ci wàllu coronavirus bi dañ ci ànd ak kii di Babacar Sow séddale bi nga xamee ni ñu ngi koy defee ndimbalub covid 19 jëwriñ jore wàllum développement communautaire yàq na liggéey bu nga xamee ni njiitu réew mi tàmbali woon na ko ginnaaw bu nga xamee ni dajale woon na doomi Sénégal yépp ngir xeex covid moo di Bassirou Ndiaye jëwriñ jore lengéey ci parti réew mi ci département bu Tivaouane suñ sukkandikoo ci li muy yàbbi nee na Mansour Faye warul woon kat sukkandiku ci li nga xamee ni mooy ay considération politique ngir séddale aide covid 19 boobee di loo xam ne li ñu ngi koy ŋaññ ba tëdd ci naaj bi Bassirou Ndiaye jëwriñ ji nekk ci bopp parti réew mi ci département bu Tivaouane lañ ciy déglu vraiment bëgg na dikki ci aide bii nga xam ne ñi ngi koy jëme ci famille yi nga xam ne dañoo loru te gouvernement bi war leen a jàppale gouvernement bi nag président Macky Sall dafa am nu mu tàmbalee woon tàllal loxo opposition bi yépp ñooñu ànd ak ñoom pour jàpp ñëpp ci waa Sénégal yëpp àndanoo nekk benn xeex Covid 19 waa nde ndimbal lii dey nii ko Mansour fay tàmbalee awul ci yoon ndax ndimbal dañoo wax ni liste bi ñu jëkkee def dañ koy def ci list registre national unique loo xam ni ñi aman bourse familiale ñoom la ñu jëkk a jox ñooñee nag may xamale ni bu passé première génération ba leneen lu ca toppan ci politique politicien lañu ko defee militant APR ñoo nekk ci list yooyu APR lañ ci li gën a bari ñi ngi def politique boddidente te loolu moom may yokk ci nii mi ngi ñaan ñu ubbi luuma yi nga xamee ni fa la ñuy jaaye jur gi ba benn waxtu ci bëccëg sax ngir mën a tax ba ñi nga xamee ni ñoo ñi nekk ci dëkki kaw yi am lu ñu dundee Tivaouane Babacar Sow dañ ci jokk ak yéen pour Sud FM Babacar Sow ñu wax ba tey ci wàllu coronavirus ak tamit li nga xam ne rek moom moo jëm ci wàllu marché ak tamit ñuy jort ne moom nag fa lay yëf yi daf mën a di jóge laal ci kaw askan wi ci bi donc doon nañ koo defaraat di fa yëkkati yi nga xam ne waruñu faa nekk démb na mu am ci àjjuma ji ay moyens yoo xam ne yu am solo la ay bulldozer ak camion yëpp a ngi woon Cheikh Tidiane Camara la déglu mu indi ci ay moom mooy préfet bi ci micro kii bëggee di ko seetaan dana nekk ngaañ ci ñi nga xamante ne nii ñoo fi ne di fi dàq seen wërsëg ngaañ ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy xëy si di ndugg si di dox ci seeni soxla li fi nekk jamono yi ci doomi aadama ëpp na waaye itam anam bi ñu fi nekkee itam anam la bu doywaar ndax toogin la bu nga xamante ne ni dafay xaw a nuru lu neex waay def tali bi yëpp ay nit toog ci lal ci oto du jàll ñaari jéego doo ko dox te mbëkkantewuloo ak sa morom boobu ba léegi sunu borom mu ngi ñuy suturaal mooy bu ñuy wàññi ñan ñoom la feebar bi dal ñu ngi sant suñu borom ak léegi wàññee guñ fi benn ci biir kawlax kon nag loolu duñu ko am ba pare bi ko sàggane buñ ko seetaanee bu ñu yàlla nattoo kenn ci ñun am ko rek lim bu takk mbir mi dina leen laawaale bu dul sax nag mbiri jàngoro ji képp ku yeewoo kawlax te xam barab bii di marché centrale ni mu tëddee boo ñëwee di ndugg si am fi soxla sa xol du neex jamono bi ñu noppee ci di toxal la amoon fële ca garage Nioro dégg ngeen préfet dégg ngeen gouverneur dégg ngeen mairie ñu wane seen yéene ci dakkal lii nekk fii loolu nag rek lu ñu ñëw dëggal ko tey lu mënta ñàkk la waaye def nañ ko ci kaw quand même waxtaan gannaaw nag marché bi yàlla dafa def ne am nañ ñoo xam ne mooy seen barabu liggéey fii la ñuy xëy fii la ñuy gont waaye terewul béréb bu mel ni nii nag dina am ay kuréel am ay mbootaay ci seeni ndaw lañu jaar woo leen ci waxtaan wax leen li ñu nar ñëpp dañoo ànd ci ne lii nañ ci jóg ci bi muy teel mu doon liggéey bu nga xamante ne nii liggéeyu mànkoo la préfet def na ci loxoom gouverneur bi loxoom ci biir madame le maire de Kaolack loxoom ci biir commissaire central coordonnateur ASP moom itam loxoom ci biir UCG seen loxo ci biir. UCG seen loxo mu ngi ci biir ñu wax ci li ñu mel tam la ñu mel ko nekk ci marché Castor démb li nga xam ne kat moo fa nekk étal yi ak ah, yi nekkoon ci tali bi yëpp gantal doon lañ ko fay jëlee bokk na ci nag ah, lu jëm ci wàllu cantine yi ni mel opération boobu nag muy am ci xeex ak wàllu Covid 19. Abdou Karim Fofana mooy ministre bi dénk wàllu hygiène publique ñu dékk la ko ci micro Ndeye Mariam Ndiaye. moo tax it marché yi ñu war ci taxaw fexe nit ñi bu ñu fay dem ñu bàyyi xel euh, fag fagaru bi ñu war a fagaru waaye fexe tamit leneen li nga xamante ne moo am solo mooy euh, ñoom ñu fexe tamit ba. Euh, yee nit ñi ñuy raxasu di soriyante di def lépp loo xam ne rek war na mën a aar li am solo mooy ku ne ku ne ne ci sa bopp feebar bi du jaar ci man ba egg ci nit ñi voilà. ñu gis nag ne marché Castor du guleet ñu fi def genre opération yi ndax fi mu nekk nii jotul ñu jël benn matuwaay définitif boo xam ne daal dina tax ba encombrement bi faral di am ñu wàññi ko bu baax. waaw marché yi eh, ñu ngi ciy jóg waaye dafa am loo xamante ne moom mooy faj jàngoro bi ginnaaw ñàkk set beeg mooy am ay tabax yu bees yoo xamante ne seen dayo toll na ni ni nga xamante ne euh, moom la problème bi toll ndaxte suñu marché yëpp boo ko seetloo bu njëkk ba ay jamono yu année soixante dix ak année soixante lañ leen tabaxoon marché boo ci gis téeméeri place wala ñaar téeméeri place moo fa nekk pour ay jaaykat waaye léegi li fiy jaay ëpp na junni ci ay nit donc bu ñu amul ay place ci la ñuy génn ci biti bu ñu amul ay place bu ñuy jóg fa la ñuy sànni seen i mbalit parce que ñoom ñëpp mënuñoo dem fa ñuy saa sànnikaayu mbalit bi ñun ñu ngi organiser wu weer wii weesu rek teg nañ juróomi téeméeri pôlu mbalit ci dakaar ñu ngi waaj tegaat faj 1000 bu ñu paree ñu dugg Thiès dugg feneen dugg Mbour ak dëkk yëpp mais organisation bi il faut mu am benn ñaareel bi tamit il faut ñu def investissement yi nga xam ne moo tax ñu toj marché yi tabaxaat yu gën a mag yoo xam ne gën na bëri place ndax ku ne mën a am place boo dugg te bañ a ne ci biti bi. Mm-hmm. buñ ko deful rek lii day gën a continuer di ci lim. ginnaaw marché Castor ndax mën nañ leen xaar tamit a ñu gis leen feneen. waaw ci yeneen marché yëpp ndaxte ku nekk am nañ seen programme suba ñu ngi jëm Géejawaay euh, dimanche ñu ngi jëm euh, marché Ngor ak bu Wakaam donc noonu lañ koy continuer rek faaw nit ñi ñu leen di waxtaan ak ñoom di leen jox message di setal di leen won lañ koy defee ànd ak maire yi. Mm-hmm. ñoom it ñoom engagement lool bi président wootee ba léegi. ba tey des wàllu commune Dieuppeul Derklé tamit euh, bokk na ci gox yi nga xam ne nag it euh, euh, na marché nag maanaam jaarul yoon maire commune nag nee na moom noppi na rek dugal loxoom bu baax baax ci li nga xam ne mooy xeex bi ngir jële fi wàllu coronavirus bi ci fan yi dëgmal si nag dinañ def kéemtulaay kàttan fexe nag ba ñuy takk ay masque ci marché ak lieu public yi Cheikh Gueye mooy maire Dieuppeul Derklé ci micro Ndeye Mariam Ndiaye. liggéey bi liggéey bu am solo la ndax dañu nekk ci jamono boo xam ne jàngoro bi lëmbee réew mi ku mu tiitalul. yaakaar naa ñu doon it ba tax na kenn ku ci nekk war nga ci am taxawaay bu mat sëkk d'abord yow ci sa bopp aar sa bopp mooy aar sa njaboot aar sa bopp mooy aar sa xarit aar sa bopp mooy aar sa famille aar sa bopp mooy aar askan wi kon kenn ku ci nekk am nga taxawaay boo war a am bu weesoo li nga xam ni waa kër docteur wax nañu ko ñu bàyyi bépp bërëb boo xam dañ fay dajaloo te dajaloo bi amul solo xam nga marché bu doon lu ñu mën a tëj tëj nañ ko abadan comme que dafa am ay sekkeen ak jaween yu nekk ci réew mi boo tëjee marché yi du ñu am fu ñu lekkee mais buñ ko ubbee aussi bu mu tax ñuy farataal nit ñi di daje. kuy ñëw ci marché bi war nga takk masque kiy jaay ci marché bi war na takk masque loolu lu war a nekk la lu war a am la kenn ku nekk da ko war ci sa bopp defe naa ne bu ñu doxalee loolu jàngoro bi mën na dellu ci ginnaaw cas communautaire yi looloo ko indi. ndox euh, cas bi ni ci jaruñu ñu koy xóotal li ci nekk xam nañ ko euh, sànq ci suba wax nañu les quartiers chauds mais xam nga fu ñu waxee quartier chaud am na quartier tiède ak quartier froid mais quartier chaud bu ñu deful ndànk ñu wàllu yu tiède yi wala yu froid yi et li ci war mooy taxawaay bi mooy ñu renforce sensibilisation ñu wax ba tey ci wàllu des ca Castor tamit li nga xam ne nag moom moo nekk ca Castor moom eh, askan nag fa dëkkee nelawatuñ ci li nga xam ne rek moom moo jëm nag ci wàllu cas communautaire yi moo tax sax matuwaay yëpp ñu ngi koy faral di jël dañ caan dëkk di Fatoumata Diallo askan bi dëkk ci Castor nag nelawatuñu ba yàndoor li ko waral nag moo di jàngoro ji ñu duppee Covid 19 mu bokk ci communes yi nga xam ne enregistré nañu nag ay kaa communautaire ngir nag xeex ni jàngoro bi di lawee jël nañ nag bépp matukaay fu soriwul marché bi dara ci kër gi nga xam ne famille Sarr ñoo fi dëkk duggee nag li ngay njëkk a gis moo di benn table bu ñu teg ay solution hydroalcoolique dàll yi sax dañu koy désinfecté bu saar moom ñu expliqué li ko waral. xam te noonu la ñu ngi dëkk ci tali ba nga xamante ni tali la nit yi dañuy tifli même bu dul sax virus bi nit ki mën na am beneen feebar boo xam ne ci tuflit lay jóge donc pour nga mën a sàmm sa bopp ci loolu da ut ay mesures. léegi li koy éviter mooy dàll yooyu nga xamante ni moom mooy jële ci biti dugal yooyu ngay njëkk a commencé désinfecté nga boole ci nag jënd gant jënd masque pour sooy génn li ngay laal lii chaque matin nga désinfecté. El Hadj Malick Guindo moom it dëkk ca Castor xibaar bi nag mi ngi ko yëgee ci rajo yi ak ci télé yi waaye teewul mi ngay jël bépp matukaay ngir xeex jàngoroy coronavirus. man maa ngi koy dégg ko maa ngi koy dégg nag waaye xamaguma ban koñ la am waaw wax dëgg fa neex yàlla maa ngi koy dégg ça fait deux trois jours yi passé mais bu ba ma ko déggee ba léegi man maa ngi man maa ngi ni fi yow. tax na nag ba ku nekk toog bañ a jege sa morom dina lu nar a yomb ki ko xam ne di Sakoura Badiane mu yokk ci ne salte gi nekk ci marché Castor moom nag bokk na ci li leen gën a sonal. parce que papa yaay doom sœur frère bu ñu nekkee on est huit ou dix dans une dans une même famille dans un espace assez réduit kooku moom boo nee vraiment respecter les distances de un mètre eh, xaw ma nu ñu koy waxee xaw ma naka sociale la distanciation sociale kooku moom en vérité mënul nekk dans nos askan wi yeewoon nag fii ci Castor nañu bu baax ni jàngoro bi di lawee tamit yokkute kaaw communauté yi ndaxte marché Castor dafa bëri ay doomi aadama yi fay ñëw dugg beeg génn bi dafa bëri ca noonee sax la ñuy woo ki nga xam ne moo di seen maire ngir mu wut ci ay saafara ci waxtu yi nga xam ne marché bi moom la war a tëj al fukki simili ak juróom-ñaar moo taf ci juróom-ñaar wax ci suba si fi la ngeen mën ci wàllu xibaar yi ànd leen ceeg Aline Badara Sosé ci wàllu xarala gi ci kàddu gi Alaaji Malick Ndiaye fii ak ay simili noonu ngeen ànd ak Adja Ndeye Mariam Ndiaye ci wàllu revue de presse bi man ma leen jox di daje incha allah rabbi bu juróom-ñaar tu lay doon si kàttan Yàlla jaa ngeen jëf feebaru coronavirus ba léegi mi ngi fii ci biir réew mi léegi sax saa su ne dañuy faral di nemmeeku ne am nañu ay cas communautaire lan mooy cas communautaire. cas communautaire yi mooy euh, cas yoo xam ni kenn xamul fi ñu jëlee doomu jàngoro ji donc kenn xamul kan moo leen wàll. docteur Boubacar Signaté nekk urgentiste di ci yokk di xamle ne cas communautaire yooyu sax laata ñu leen di identifier dina fekk ñu wàll yeneen yi nit. xayma nañ à près kenn ku nekk mun mun na wàll ñaar na loolu sax donc tant que gisuñu source boobu di wàll nit feebar bi day gën a law moom muy gën di di wàll ñeneen. ana yan matuwaay la ñu war a mën a jël ngir fexe nag ba lii tàmbalee di fës di cas communautaire yi ñu faagaagal ko. cas communautaire yi mi ngi bëgg a bëri mi ngi bëgg a jégg dayo bon dëgg région bu nekk gouverneur bi mooy diriger comité régional bi xamante ne moom moo yor xeex bi ñu ngi leen di ñaan ku nekk. nga am taxawaay pour cas communautaire yooyu ñu mën ko daggal nu mu gën a gaawee. ay gouverneur yu bëri ñoom sax tàmbali woon nañu di jël seeni matuwaay gouverneur bu Tambacounda keroog ba mu amee benn cas bu fës foofu nga xam ne moom mooy ci biir diwaan bi mu daal di jël décision ne village bi di Boyingal Bamba te mu nekk nag ci biir département bu Goudiri dañu koy tëj kenn du fa dugg kenn du fa génn ngir fexe nag ba gën a xeex lépp lu jublu ci wàllu feebar boobu fii ci biir Kër Massar bu diwaan bu Pikine moom it daal dinay jël décision dootu fa ubbi ci benn boutique te it sax dajaloo ga fay faral di am nag dañu koo teree yooyu dogal ñoo fekk ci nag yeneen mesures yi nga xam ne gouvernement bi ba feebar bi di coronavirus tàmbalee ba léegi ñu ngi koy jël. ministère la santé et de l'action sociale mi ngi demandé population yi ñu déglu bu baax te dëgg ndigal yi ñu leen di jox pour que ñu mën a daan Covid 19 bi gën nekk suñu réew. contradictoire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 Toute la différence est là, sur Sud FM. lii Coronavirus, le Sénégal enregistre une troisième mort sur son sol. Les cas communautaires progressent. Le Sénégal est-il sur la pente dangereuse Le système mis en place et coutumes Macky Sall et ses sorties médiatiques, de la dette africaine, le G20 décide d'un moratoire sur de quelques 44 milliards À toutes ces questions, coordinateur en management des organisations, va y répondre dans l'émission Objection de ce dimanche avril à partir de 10h sur la 98.5 et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Objection, c'est l'émission de la rédaction animée par Bayou Marguet. CIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre vingt ba diamètre quatre cent millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable aussi des tubes télécom et des tubes orange loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moom mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy loo ci soxla rek ñu defal la ko ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo compagnie sénégalaise 15 industriels de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip arobase csip.sn visitez

découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Amadou Bamba, Dakar. Téléphone CSIP et les établissements Baye et Frères vous offrent la revue de presse. Ndeye Marieme Ndiaye

et socialement justifiée par l'urgence à disposer de vivres à distribuer aux populations nécessiteuses, le souci de transparence et de respect des règles d'éthique et de bonne gouvernance ont primé. Ensuite, Mansour Faye a nié tout favoritisme concernant donc l'attribution des marchés du transport de ces vivres et il a carrément fait savoir qu'il ne connaît pas Diopsi et que c'est l'entreprise l'UDE qu'il connaît, une entreprise qui a été soumissionnaire et qui a bénéficié quotidien concernant ce sujet qui fait polémique, le ministre appelle la société civile à se consacrer à l'essentiel. Il pense nécessaire qu'il est tout à fait possible pour les uns et les autres de venir s'impliquer volontairement pour effectivement atteindre les objectifs et les cibles. Pour Mansour Faye, être là à cogiter, à parler, à parloter, ce n'est pas nécessaire. Dans le journal Critique, c'est le Forum civil qui est resté sur sa faim après la sortie

qu'il y a un débat autour de la gouvernance qui se pose et qui pose un réel problème de surfacturation, de népotisme, mais également de favoritisme. Et en parlant de favoritisme dans le journal LAS, nos confrères nous indiquent que concernant les attributaires des marchés du riz, l'un des soumissionnaires qui a été cité hier par le ministre, à savoir le propriétaire du groupe Bambouk, Mohamed Dien, est membre de l'Alliance pour la République. Il est aussi de sa

pour finir à 7 heures du matin. Et selon nos confrères du journal Tribune, pour une bonne maîtrise des cas communautaires, c'est comme qui dirait que le chef de l'État Macky marche vers le confinement. À signaler avec nos confrères du journal Tribune que le Sénégal a enregistré hier un troisième décès du coronavirus. C'est un homme de 63 ans qui était hospitalisé depuis mardi avril au site de traitement des épidémies du centre hospitalier régional de Ziguinchor. aujourd'hui de Henri Camara, euh, surnommé Mister Record. En effet, euh, selon nos confrères, il est meilleur buteur en Cannes avec Sadio Mané. Il est aussi le recordman des sélections et des buts. Et aussi, euh, Henri Camara est le seul Sénégalais auteur d'un but en or au mondial. Henri, la de la tanière, écrivent nos confrères du quotidien du sport Stade. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP, ñëpp ràññee ko compagnie sénégalaise industrielle société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre vingt ba diamètre quatre cent millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange loo namm ci tube orange wala tube télécom ko ci ñun nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moom mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy loo ci soxla rek ñu defal la ko ba noppi dañu lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña ca domaine industriel de Diamniadio 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip arobas csip point sn visitez notre site web www.csip.sn à l'établissement Baye Frères votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique

découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh de Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous ont offert la revue de presse. Lorsque les autres visent Dakar, nous, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là, sur Sud FM. Lorsque les autres visent Dakar, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là, sur Sud FM.

il y a lieu de mettre à niveau nos infrastructures marchandes et nous sommes en train d'y travailler avec les communes, avec les investisseurs publics, réfléchir à un modèle de partenariat public-privé ou public-public entre structures publiques de façon à offrir à nos commerçants, à nos populations des équipements marchands qui soient à la hauteur de l'ambition du Sénégal et à la hauteur des risques du moment. Nous sommes dans des périodes très difficiles où pour rien du tout on peut tout le monde entier, vous l'avez vu, arrêter toute l'activité économique mondiale. Et nous ne devons pas demain que ça vienne de l'Afrique ou que ça se propage euh, de façon sauvage. Donc, nous allons travailler sur le long terme, sur le court terme et le moyen terme. C'est ce que nous faisons, nettoyer, interdire. Mais euh, la solution, ce sera l'investissement, la réorganisation et le changement de comportement. Après le marché Castor, quels sont les autres euh, établissements qui sont prévus euh, Tous les établissements de Dakar et tous les établissements du Sénégal. Maintenant, il faudra du temps. mais nous allons y travailler petit à petit de façon à éradiquer parce que nous sommes comme je le dis souvent dans une euh, dynamique de transformation sociale faire en sorte que les gens changent d'habitude de comportement donc ça va pas se faire en trois mois ni en six mois mais nous nous, nous y mettons en relation avec les maires avec l'administration territoriale pour avoir le résultat qu'il faudra

masque sera obligatoire dans le marché et des masques seront d'ailleurs distribués aux commerçants. Les clients sont également invités à en faire de même. Cheikh Gueye, le maire de la commune de Dieuppeul-Derklé, il répond à Ndeye Marième Ndiaye. Le marché, c'est pas la rue, c'est la voie publique. Je pense qu'il faut que les commerçants et les clients comprennent qu'aller au marché, c'est pas aller sur la voie publique. Nous n'accepterons plus jamais que elle doit être libérée pour que les véhicules puissent aller et revenir. Mais ce n'est pas fait pour étaler des marchandises. Et comme l'a dit tout à l'heure le ministre, nous avons eu à faire beaucoup d'opérations, mais je pense que à force de descendre sur le terrain et de faire des opérations, je pense qu'on aura des résultats satisfaisants. commune de Dieuppeul-Derklé fait partie de ces communes qui ont enregistré des cas communautaires. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qu'il faudra faire pour éradiquer euh, ces cas ou bien lutter efficacement pour permettre que ces cas à l'appel la Santé. Il a été notre pays. Entre autres, on a parlé du port obligatoire de masques et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons donner des aux euh, surveillants du marché de Castor pour que chaque commerçant puisse mettre le masque. Mais, mais demander aussi aux clients qui viennent au marché de mettre le masque. Mhm. Je pense que se protéger, c'est protéger la collectivité. Se protéger, c'est protéger la communauté. Il va de soi que si chacun et chacune met son masque, on pourra effectivement faire dans la résilience et lutter efficacement contre cette pandémie-là. Entre autres recommandations, j'ai entendu le président de la République dire qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont prises. Si au bout du compte, la situation ne changeait pas dans le bon sens, on va renforcer ces mesures-là et je pense qu'on n'en arrivera pas à ça. Il s'agit aujourd'hui d'avoir un comportement responsable. D'abord individuel, d'abord, ensuite collectif. Que chacun pense à soi, pense à ce qu'il doit faire. Vous venez de suivre les propos de Cheikh de la commune de Dieuppeul-Derklé, euh, la commune qui a initié hier une vaste opération de désencombrement au niveau du euh, marché euh, Castor. Un cas communautaire à Castor, les habitants sont inquiets. Beaucoup de familles prennent déjà leurs dispositions, respectent les mesures barrières et vont même Au-delà, un reportage de Fatmata Diallo. À Castor, les populations ne dorment pas du sommeil du juste à cause de la pandémie du Covid-19, faisant partie des communes qui ont enregistré des cas communautaires. Ainsi, pour stopper la propagation, toutes les dispositions sont prises. Non loin du marché, dans cette maison où habite la famille Sarr, à l'entrée, des solutions hydroalcooliques sont exposées sur une table. Même les chaussures sont désinfectées, nous explique Seynabou Sarr. Toutes ces maladies-là tout le temps, On s'est dit, avec euh, ce virus-là, on a trouvé, on a essayé de fabriquer nous-mêmes euh, des antiseptiques. Si quelqu'un entre, la première chose à faire, c'est désinfecter les chaussures. Désinfecter les chaussures avant de le laisser passer. C'est juste à la porte. Prendre les gels hydroalcooliques, mettre sur les mains avant d'entrer dans la maison. Et chaque matin et chaque soir, on essayait de prendre les poignées des portes. El Hadj Malick Guindo est aussi habitant de Castor. Il a appris la nouvelle à travers les médias, mais n'empêche, il prend toutes ses mesures pour freiner le coronavirus. Et en ce moment, ce que je pourrais te dire, moi, je me et euh, j'informe tous les gens qui sont qui sont euh, les gens qui n'ont pas informé de se mobiliser pour lutter contre. La promiscuité fait que se confiner ne sera pas chose facile, c'est du moins l'avis de Sakura Ndoye. Il s'y ajoute que la salubrité qui sévit au marché Castor est un véritable casse-tête. Ah, c'est la promiscuité qui fait que le confinement est un, problème, au niveau des familles. Tu prendre les dispositions au dehors, mais dans la famille, tu ne peux pas être confiné dans la famille. on Euh, prendre de distance entre, entre père, époux, frère, sœur. Les populations de Castor sont bien conscientes de la propagation du coronavirus, notamment des cas communautaires, raison pour laquelle l'image de la famille Sarr, certains foyers prennent toutes les dispositions. Toutefois, les habitants sont très préoccupés par le marché Castor qui est souvent bondé de monde. C'est pourquoi ils interpellent l'autorité municipale sur les heures de fermeture du marché. Fatmata Diallo à Kolda, l'un des sept patients du Covid-19 est déclaré guéri. Il sera libéré dans les prochaines heures, euh, selon le médecin-chef de la région médicale de Kolda, euh, qui euh, affirme que donc la situation, l'état des autres patients est stable. Ils sont tous originaires de la région de Dakar. Docteur Yaya Ba affirme également que les dix personnes contacts euh, confinées à Vélingara, des tests ont été effectués, des tests négatifs. Docteur Yayaba qui rappelle cependant que la vigilance communautaire euh, doit rester de mise. Ses propos sont recueillis par Moussa Dramé. À ce jour, vendredi 17 avril 2020, nous avons enregistré un cas de guérison Il est donc sorti du suivi. Les six autres également, leur état de santé s'améliore et ils vont également avoir droit à des contrôles de laboratoire aujourd'hui. Ce patient guéri également est actuellement aux mains de la commission psychosociale qui est en train de l'accompagner pour qu'il puisse rejoindre sa famille puisqu'il s'agit d'un patient originaire de la région de Dakar. Tous les patients hospitalisés ici sont originaires de la région de Dakar. Au niveau de Vélingara également, comme vous l'avez suivi, c'est cette patient, on avait dépisté une dizaine de contacts à haut risque ou à bas risque qui avaient été confinés. Ces 10 contacts ont été suivis pour une période révolue de 14 jours. Nous avons même procédé à deux examens de laboratoire chez ces individus qui se sont tous avérés négatifs, ce qui fait que le mardi, nous avons procédé à leur libération. Cela fait qu'aujourd'hui, au niveau de Velingara, il n'y a plus de personnes mises en quarantaine. Dans le reste de la région également, il n'y a pas de personnes confinées présentement. Mais il y a toujours des opérations qui se poursuivent dans la communauté, mais également le long de la frontière pour euh, pouvoir euh, appréhender toutes les situations à risque et faire les investigations nécessaires. Riposte communautaire en synergie entre les forces de défense et de sécurité et le conseil municipal de Niaga dans l'extrême sud de Sédhiou. Les différents points de passage transfrontaliers sont bouclés. Assurance donnée par le maire Yoro qui euh, mobilise un important lot de un important donc euh, dispositif de prévention. Toutefois, il redoute la précarité et sociale. Euh, Yoro Mbalo, le maire au micro de Moussa Dramé. de contournement au long de la frontière parce que nous sommes une commune frontalière. Grâce aussi à l'appui du cantonnement militaire de Bantangel et de Sarekunda, nous avons mobilisé une enveloppe de million pour payer les produits d'entretien. Dans le cadre des fonds nous allons mobiliser une enveloppe de 2 ou pour des médicaments. C'est la commune qui fait frontière avec Kolda. Alors il fallait naturellement tout suite et maintenant milliards de gel et du C'est le même cas dans le cantonnement militaire de Sarekounia. Nous avons dit qu'est-ce que nous faire pour cette euh, commune de Nianga qui est très en retard par rapport à certaines communes. Nous n'avons pas de marché, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. Qu'est-ce qu'il faut nécessairement pour au moins pouvoir respecter le confinement? Nous avons appris les dons de vivres, mais nous avons dit que ce don-là, par rapport 20 tonnes de riz pour au moins donner au moins à ces populations-là. De respecter le confinement dans nos villages respectifs. Et aujourd'hui, dans ce cas du couvre les gens respectent ça à merveille. Nous avons une commune frontalière, une commune carrefour, la commune de Kolibantan à gauche, la commune de Karantaba à gauche, la commune de Tankanto Escale et de Sareyeba à l'est, nous aider à identifier vraiment l'ensemble des voies de contournement. Le mouvement des anciens volontaires de Mercy Ships apporte également sa contribution dans la lutte contre virus euh, de, du Covid-19 pour le premier acte posé. Ces euh, la Médina. Ils ont pu distribuer des gels antiseptiques, des gants et même des masques aux, aux populations. Ils euh, comptent étendre leurs activités euh, dans le reste du pays. Adia Aminata Bang, secrétaire générale du mouvement des anciens volontaires de Mercy Ships, au micro de Adi Fatou Barry. qui est très récent, d'accord Et donc aujourd'hui, ce qu'on c'est notre première activité en tant que telle. Et euh, c'est dans ce sens-là qu'on a ciblé euh, la Médina, notamment entre le rond et le marché télé. Et dans ce cadre-là, on a tout simplement voulu distribuer des kits, à savoir euh, des gels antiseptiques, des masques, des gants, des flyers, et poster des, affiches un peu partout sur cet axe-là, afin que les populations puissent être sensibilisées à leur niveau. on va dire qu'on a distribué 1000 gants ainsi que 1000 masques. Et concernant les gels antiseptiques, on a distribué 100 bouteilles de litre. Alors, la prochaine étape, on va dire que ce sera au niveau des euh, transports Donc, ce qu'on a pensé, tout simplement, ce serait tout, la possibilité de pouvoir donner à chaque receveur un masque ainsi qu'un gel pour les clients qui vont monter dans les transports, qui vont les utiliser, mmh. que chacun de nous puisse voyager en toute sécurité. Parce qu'on est conscient qu'avec la pandémie, la plupart des gens ont peur de sortir ou bien préfèrent marcher ou prendre les taxis. Mais il n'empêche qu'on a toujours ces transports qui fonctionnent, qui sont là pour nous les citoyens. Et donc le mieux, c'est de faire en sorte qu'on puisse les Là, actuellement, vraiment, le but, c'est de stopper la transmission communautaire mhm. qui est en train de faire des ravages. Contribution également du Khalif général de Thiénaba dans cette lutte contre le Covid-19, Serigne Cheikh Tidiane Seck a apporté son soutien au comité régional de gestion des épidémies de Thiès à hauteur de 6 millions de francs CFA. Il s'agit de 3 millions en espèces et euh, de donc produits euh, d'hygiène, une participation à l'effort de guerre euh, selon son porte-parole. Le gouverneur de la région de Thiès salue euh, ce geste. Il a profité de l'occasion pour inviter à nouveau les citoyens à respecter les mesures barrières. Mohamedou Moustapha Ndaw est le gouverneur de Thiès. Il réagit au micro de Babacar Ndaw. Je vraiment remercier d'abord le calife et dire qu'il nous a agréablement surpris. On s'attendait à ce qu'il fasse des prières, à ce qu'il fasse des recommandations, qu'il fasse un appel aux talibés pour qu'ils respectent donc les mesures barrières et les recommandations des autorités de la santé en général. Mais vous nous donnez une contribution des gens, vraiment on s'y attendait pas. Mais cette contribution est la bienvenue. Nous allons aller Khalil Tianaba est à Tianaba, dans la région de Thiès, mais a une dimension nationale. Nous allons donc montrer à toutes les autorités de l'État que Khalil Tianaba a donné sa contribution. Nous leur indiquer ce qu'ils nous ont en bien, mais nous allons également verser dans le compte force covid donc euh, l'argent qu'ils ont remis. On va remettre également au ministre de l'Intérieur une copie donc, de, de, ce, de ce, ce bordereau de euh, des, des, que nous avons conçu contribution du Khalif de Thiénaba à la lutte contre le Covid-19. Vraiment, on voudrait l'en remercier très vivement, remercier son porte-parole, lui demander de passer nos salutations au Khalif, lui demander surtout de continuer à prier, de continuer pour que cette épidémie-là sorte du Sénégal, cette pandémie sorte du monde entier et qu'on puisse vraiment reprendre les activités pour que l'économie ne soit pas bloquée, pour qu'après l'épidémie, qu'on pas la famine, qu'on pas donc une crise économique. monsieur le gouverneur, le constat est que les rassemblements continuent toujours dans la cité. Qu'est-ce que vous comptez faire dans ce... recommander aux gens très vivement d'arrêter les rassemblements. On envoie souvent maintenant aller à la répression. Donc c'est recommandé à chacun de rester chez lui. Quand on doit sortir, parce que forcément il faut sortir, il faut aller par exemple acheter de quoi vivre, il faut aller acheter des médicaments, il faut aller travailler, qu'on le masque. comporte porte le masque, je pense qu'on va le recommander très vivement maintenant le port du masque. On le masque pour aller dans les endroits où l'on ne peut pas ne pas aller. Et pour le reste, on recommande encore une fois Étendre les horaires du couvre-feu de 18h à 7h du matin afin de lutter contre la Euh, du virus, le président Macky Sall n'écarte pas l'option. Il l'a confié à nos confrères de RFI et France 24 lors d'un entretien hier. Le président Macky Sall s'est également prononcé sur euh, les supposées malversations concernant l'aide alimentaire. Amadou Moustapha Dia. Le président Macky Sall n'exclut pas d'étendre la durée du couvre-feu en vigueur de 18h du soir à 7h du matin. Et ceci pour briser la chaîne de transmission des cas communautaires. Il l'a fait savoir à nos confrères de France 24 et de RFI lors d'une interview. Certainement, avec euh, les, nouvelles, euh, les nouveaux cas communautaires, nous allons réajuster les horaires du couvre-feu, peut-être remonter un peu plus, démarrer dès 18h communication au niveau des communautés est très Alors si tout cela ne suffit pas, de l'évolution, nous n'exclurons pas d'aller vers des euh, Il confirme le troisième cas de décès enregistré ce vendredi dans le pays. Au moment même où je vous parle, on vient d'enregistrer le troisième décès. En fait, euh, donc nous avons comme nombre de décès trois depuis, depuis tout à l'heure. Le président Macky Sall s'est aussi prononcé sur le tollé soulevé par les supposées malversations financières concernant l'attribution des marchés des denrées et de transport des vivres il se désole d'un débat au ras des pâquerettes. Vous savez, ce qui est regrettable, c'est que lorsque nous attaquons des sujets d'importance, qu'on veuille nous ramener vraiment euh, vers, euh, de pâquerettes. Euh, qu'on nous ramène vers un débat de transport de vivres euh, euh, et puis que vraiment cela puisse être relayé à ce niveau, j'en suis très désolé, mais vous savez, mais je peux vous simplement dire que tout sera mis en œuvre, d'autant plus que je viens de créer un comité de pilotage dans lequel j'ai décidé de mettre, euh, peut-être il y aura une personnalité indépendante qui va le diriger. Le président Macky après son appel de Dakar, réaffirme sa position par rapport à l'annulation de la dette des pays africains. La maladie frappe lorsque pour l'humanité

Euh, de malversation dans euh, la gestion de l'aide alimentaire destinée aux ménages vulnérables dans ce contexte de pandémie du Covid-19. Hier d'ailleurs, le ministre Mansour Faye en charge développement communautaire euh, s'est expliqué sur la procédure. Le forum civil appelle lui au respect des principes généraux de bonne gouvernance malgré l'état d'urgence. la réaction de Abdou Aziz Diop, vice-coordonnateur national du forum au micro Babacar Sow. La polémique autour de la gestion des fonds liés au Covid-19 devrait servir de en charge de l'opérationnalisation des dix fonds, pour qu'elles comprennent que, quelle que soit la célérité ou autre motif évoqué, leur action devraient être circonscrites ou encadrées par les principes généraux de bonne gouvernance, notamment la participation, l'équité, l'efficacité, l'efficience, la transparence, la redevabilité parmi tant d'autres. Cependant, il est la confiance entre les différents Il urge aujourd'hui de mobiliser les citoyens autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi C'est de renforcer cet élan national de patriotisme et de solidarité. L'essentiel, c'est quoi C'est de mobiliser toutes les énergies autour de la riposte pour endiguer cette pandémie. L'essentiel, c'est quoi C'est de mettre en place des organes de pilotage inclusifs et indépendants, tant au niveau central qu'au niveau local. L'essentiel, c'est quoi C'est qu'au moment stérile et inutile que ces dix comités, surtout au niveau local, obéissent aux mêmes critères de bonne gouvernance. Et mieux même, si on pouvait inclure dans le fonctionnement de ces dix comités, pour ceux qui sont ciblés, les membres de ces dix comités, qu'on puisse inclure le principe du conflit d'intérêts, que les proches de ces différents membres des dix comités, surtout au niveau local, ne soient pas des bénéficiaires directs de cette aide. Autre élément aussi important, toutes ces actions, toutes ces mesures exceptionnelles prises visent un seul objectif, avoir un impact réel sur le vécu et le ressenti des populations, surtout les couches les plus vulnérables. Le parti Rewmi de Tivaouane se prononce également sur cette distribution de l'aide sociale et estime que le ministre Mansour Faye est en train de saper la cohésion nationale après l'appel du président Macky Sall. Babacar distribution de l'aide alimentaire Covid-19, le ministre du Développement communautaire est en train de saper l'unité et la cohésion nationale que le président Macky avait réussi à sceller au niveau de la nation sénégalaise. Ce sont les termes de Bassirou Ndiaye, responsable départemental du parti Rewmi à Tivaouane. À l'en croire Mansour Faye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne devait pas baser cette distribution sur des considérations politiques. Une situation dénoncée jusqu'à la dernière énergie par le responsable du parti Rewmi dans le département de Tivaouane, Bassirou Ndiaye. Sall suis la prouesse de rassembler l'ensemble des forces vives de la nation pour la lutte contre le Covid-19. Malheureusement, Mansour Faye est en train de saper les fondements de notre cohésion nationale. En effet, la distribution des aides sociales est basée en priorité sur des bases politiciennes. À part la première génération, les titulaires de bourses familiales sont des militants de l'APR ou des sympathisants. Nous dénonçons donc avec vigueur toute distribution basée sur registre national unique qui renferme les bourses familiales. Nous prenons une distribution à tous les ménages en milieu rural. Une occasion pour Bassirou responsable départemental du parti Rewmi à Tivaouane, de plaider pour l'ouverture des marchés de bétail, ne serait-ce que jusqu'à 13 heures, afin de permettre aux ruraux de survivre. Tivaouane Babacar Sow pour la plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg se prononce également euh, sur euh, cette affaire de alimentaire de la gestion euh, des le cadre de Covid-19. Le, la plateforme réagit à la sortie du ministre euh, Mansour Faï qui n'a pas dissipé les craintes de cette plateforme car n'ayant pas répondu aux principales questions euh, posées. Euh, retenez que euh, cette plateforme s'est prononcée à travers un communiqué avant euh, de rappeler euh, que le président de la République Euh, doit donc euh, devrait euh, donc prendre les mesures pour que les fonds dans le cadre de la riposte au Covid-19 soient gérés dans les conditions de transparence. La plateforme dit son inquiétude à cause des soupçons de malversation Euh, dans les mécanismes de donc dans les procédures euh, destinées à distribuer de l'aide alimentaire aux familles euh, nécessiteuses. Il s'agit des familles impactées par le Covid-19. Il est 7h54 minutes dans nos studios. Fin de cette de l'avoir suivi. Alioune Badara Socé a assuré la mise en onde. Retrouvée à 8h, El Hadj Malick Ndiaye pour en wolof. Bonne suite

106 point 4 Sud FM Bakel 97 point 5 Sud FM à Ziguinchor Sud FM à Matam Sud FM à Ndioum Sud FM à Podor 98 Saint-Louis du Sénégal Sud FM à Louga 93.3 Sud FM à Diourbel 94.1 Sud FM à Kolda Sud FM sur internet www.sudfmsenradio.com Lorsque les autres disent Dakar, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal.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 ak li ci xam. loo ci xam. loo ci xam tous les samedis Sud FM Sen Radio vous ouvre ses portes à travers l'émission loo ci xam. chaque samedi retrouvez à partir de 9h Moussa Thiam dans votre émission loo ci xam une plateforme d'échange sur des faits sociaux les Sénégalais et la vie quotidienne. tous les samedis. discuter échange argumenter. loo xam-xam demba ma demba gën laa xam demba. lu wéy ci réew meek ak li koy doxal réewum Sénégal di soo na réew meek. feebaru coronavirus ba léegi mi ngi fii ci biir réew mi léegi sax saa su ne dañuy faral di nemmeeku ne am nañu ay cas communautaire lan mooy cas communautaire. cas communautaire yi mooy euh, cas yoo xam ni kenn xamul fi ñu jëlee doomu jàngoro ji donc kenn xamul kan moo leen wàll. docteur Boubacar Signaté nekk urgentiste di ci yokk di xamle ne cas communautaire yooyu sax laata ñu leen di identifier dina fekk ñu wàll yeneen yi nit. xayma nañ à près kenn ku nekk mun mun na wàll ñaar mun na ëpp loolu sax donc tant que gisuñu source boobu di wàll nit ñi feebar bi day gën a law moom muy gën di di wàll ñeneen. ana yan matuwaay la ñu war a mën a jël ngir fexe nag ba lii tàmbalee di fës di cas communautaire yi ñu faagaagal ko. kaa communautaire yi mi ngi bëgg a bëri mi ngi bëgg a jégg dayo bon ndëg région bu nekk gouverneur bi mooy diriger comité régional bi xamante ne moom moo yor xeex bi ñu ngi leen di ñaan ku nekk. nga am taxawaay pour cas communautaire yooyu ñu mën ko daggal nu mu gën a gaawee. ay gouverneur yu bëri ñoom sax tàmbali woon nañu di jël seeni matuwaay gouverneur bu Tambacounda keroog ba mu amee benn cas bu fës foofu nga xam ne moom mooy ci biir diwaan bi mu daal di jël décision ne village bii di Boyingal Bamba te mu nekk nag ci biir département bu Goudiri dañu koy tëj kenn du fa dugg kenn du fa génn ngir fexe nag ba gën a xeex lépp lu jublu ci wàllu feebar boobu fii ci biir Kër Massar préfet bu diwaan bu Pikine moom it daal dinay jël décision ne ba lootu fa ubbi ci benn boutique te it sax dajaloo nga fay faral di am nag dañu koo teree yooyu dogal ñoo fekk si nag yeneen mesures yi nga xam ne gouvernement bi ba feebar bi di coronavirus tàmbalee ba léegi ñu ngi koy jël. ministère la santé et de l'action sociale mi ngi demander population yi ñu déglu bu baax te dégg ndigal yi ñu leen di jox pour que ñu mën a daan Covid 19 bi génne ko suñu réew. coronavirus, le Sénégal enregistre une troisième mort sur son sol. Les cas communautaires progressent. Le Sénégal est-il sur la pente dangereuse? Le système mis en place est-il efficace? Doit-il être revu, renforcé ou adopté à nos mœurs et coutumes? Macky Sall et ses sorties médiatiques, allègement, annulation de la dette africaine, le G20 décide d'un moratoire sur une partie de quelque milliards de dollars remboursables cette année. À toutes ces questions, Marie master en management des organisations va y répondre dans l'émission Objection de ce dimanche 19 avril 2020 à partir de 10h sur la 98.5 et sur l'ensemble de la rédaction Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8 heures. El Hadj Malick Ndiaye. asalaamaaleykum juróom ñetti waxtu moom mooy soog ci suba si li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci nag euh, démb bi ñu doon jëlee nag yenn bagages yi fële ca marché Castor état li nga xam ne nag euh, noo nekk foofu te amuñ fa benn njëriñ jëlee leen leen fa loolu nag euh, ak cantine ak yenn cantine yi opération yi nag mu ngi amoon ci xeex ak li nga xam bopp si moo di Covid 19 Abdou Karim na mooy ministre bi ñu dénk wal hygiène publique ñu déglu ko ci micro Ajaratu Ndeye Mariam Ndiaye. moo tax it marché yi ñu war ci taxaw bu ñu fay dem ñu bàyyi xel euh, fag fagaru bi ñu war a fagaru waaye fexe tamit leneen li nga xamante ne moo am solo mooy euh, ñoom ñu fexe tamit ba. Euh, yee nit ñi ñuy raxasu di soriyante di def lépp loo xam ne rek war na mën a aar li am solo mooy ku ne ku ne ne ci sa bopp feebar bi du jaar ci man ba egg ci nit ñi voilà. ñu gis nag ne marché Castor du guleet ñu fiy def genre opération yi ndax fi mu nekk nii jotul ñu jël benn matuwaay définitif boo xam ne daal dina tax ba encombrement bi fi faral di am ñu wàññi ko bu baax. waaw marché yi eh, ñu ngi ciy jóg waaye dafa am loo xamante ne moom mooy faj jàngoro bi ginnaaw ñàkk set beeg mooy am ay tabax yu bees yoo xamante ne seen dayo toll na ni ni nga xamante ne euh, moom la problème bi toll ndax tamit suñu marché yëpp boo ko seetloo bu njëkk ba ay jamono yu année soixante dix ak année soixante lañ leen tabaxoon marché boo ci gis téeméeri place wala ñaar téeméeri place moo fa nekk pour ay jaaykat waaye léegi li fiy jaay ëpp na junni ci ay nit donc bu ñu amul ay place ci la ñuy génn ci biti bu ñu amul ay place bu ñuy jóg fa la ñuy sànni seen i mbalit parce que ñoom ñëpp mënuñoo dem fa ñuy sànni sànnikaayu mbalit bi ñun ñu ngi organiser wu weer wii weesu rek teg nañ juróomi téeméeri pôlu mbalit ci Dakar ñu ngi waaj tegaat fa 1000 bu ñu paree ñu dugg Thiès dugg feneen dugg Mbour ak dëkk yëpp. mais organisation bi il faut mu am benn ñaareel bi tamit il faut ñu def investissement yi nga xam ne moo tax ñu toj marché yi tabaxaat yu gën a mag yoo xam ne gën na bëri place ndax ku ne mën a am place boo dugg te bañ a ne ci biti bi. buñ ko deful rek lii day gën a continuer di ci lim. ginnaaw marché Castor leen xaar tamit wala ñu gis leen feneen. waaw ci yëpp ndaxte ku nekk am nañ seen programme. suba ñi ngi jëm Géejawaay euh, dimanche ñi ngi jëm euh, marché Ngor ak bu Wakaam donc noonu lañ koy continuer rek faaw nit ñi ñu leen di waxtaan ak ñoom di leen jox message di setal di leen won naka lañ koy defee ànd ak maire yi. Mm-hmm. ñoom it ñoo am engagement lool bi président wootee ba léegi. ñu des ba tey ci wàllu rek tamit euh, kii di maire ba di jëppal deqale di Cheikh Gueye nee bëgg-bëggam yëpp moom mooy fexe rek ba jëlee fi wopp si nga xam moo nekk Covid 19 Cheikh Gueye mooy maire bu jëppal deqale ci micro Adja Ndeye Mariam Ndiaye. liggéey bi liggéey bu am solo la. ndax dañu nekk ci jamono boo xam ne jàngoro bi lëmbe réew mi ku mu tiitalul yaakaar naa ni doon it ba tax na kenn ku ci nekk war nga ci am taxawaay bu mat sëkk d'abord yow ci sa bopp aar sa bopp mooy aar sa njaboot aar sa bopp mooy aar sa xarit aar sa bopp mooy aar sa famille aar sa bopp mooy aar askan wi kon kenn ku ci nekk am nga taxawaay boo war a am bu weesoo li nga xam ni waa kër docteur wax nañu ko ñu bàyyi bépp bërëb boo xam ne dañ fay dajaloo te dajaloo bi amul solo xam nga marché bu doon lu ñu mën a tëj tëj nañ ko abadan mais comme que dafa am ay sekkeen ak jaween yu nekk ci réew mi boo tëjee marché bi du ñu am fu ñu lekke mais ñu ko ubbee aussi bu mu tax ñuy faratal nit ñi di daje kuy ñëw ci marché bi war nga takk masque kiy jaay ci marché bi war na takk masque loolu lu war a nekk la lu war a am la kenn ku nekk da ko war ci sa bopp defe naa ni bu ñu doxalee loolu jàngoro bi mën a dellu ci ginnaaw cas communautaire yi indi ndax cas bi ni ci jaruñu koy xóotal li ci nekk xam nañ ko euh, sànq ci suba wax nañu les quartiers chauds mais xam nga fu ñu waxee quartier chaud am na quartier tiède ak quartier froid mais quartier chaud yooyu bu ñu deful ndànk ñu wàllu yu tiède yi wala yu froid yi et li ci war mooy taxawaay bi mooy ñu renforcer sensibilisation. li war moom moo ñu gën a ñaax nit ñi wax ci wàllu cas communautaire yi fële ca Castor nag parce que na jëkkee ñoom nelawatuñ bay yandoor ñu ngi jël seen ay matuwaay ngir rek xeex ak wopp si di Covid 19 dañ ci di Fatoumata Diallo. askan wi dëkk ci Castor nag nelawatuñu ba yandoor li ko waral nag moo di jàngoro ji ñu duppee Covid 19 mu bokk ci communes yi nga xam ne enregistré nañu nag ay cas communautaire ngir nag xeex ni jàngoro bi di lawee jël nañ nag bépp matukaay fu soriwul marché Castor bi dara ci kër gi nga xam ne famille Sarr ñoo fi dëkk duggee nag li ngay jëkk a gis moo di benn taabal bu ñu teg ay solution hydroalcoolique dàll yi sax dañu koy désinfecté Seynabou Sarr moom ñu expliqué li ko waral. xam que noonu la ñu ngi dëkk ci tali ba nga xamante ni tali marché nit yi dañuy tufli même bu dul sax virus bi nit ki mën na am beneen feebar boo xam ne ci tuflit lay jóge donc pour nga mën a sàmm sa bopp ci loolu da ngay ut ay mesures. léegi li koy éviter mooy dàll yooyu nga xamante ni moom mooy jële ci biti dugal yooyu ngay njëkk a commencé désinfecté nga boole ci nag jënd gant jënd masque pour sooy génn li ngay laal lii chaque matin nga désinfecté. El Hadj Malick Guindo moom it dëkk ca Castor xibaar bi nag mi ngi ko yëgee ci rajo yi ak ci tele yi waaye teewul mi ngay jël bépp matukaay ngir xeex jàngoroy coronavirus. man maa ngi koy dégg ko maa ngi koy dégg nag waaye xamaguma ban koñ la am waaw wax dëgg fa neex yàlla maa ngi koy dégg ça fait deux trois jours yi passé mais bu ba ma ko déggee ba léegi man maa ngi man maa ngi fi yow. xataayu kër yi. tax na nag ba ku nekk toog bañ a jege sa morom dina lu nar yomb ki ko xam ne di Sakoura Badiane mu yokk ci ne salte gi nekk ci marché Castor moom nag bokk na ci li leen gën a sonal. parce que papa yaay doom sœur frère bu ñu nekkee on est huit ou dix dans une dans une même famille dans un espace assez réduit ah. kooku moom boo nee vraiment respecter les distances de un mètre eh, xaw ma nu ñu koy waxee xaw ma naka social la distanciation sociale kooku moom en vérité mënu nekk dans nos familles askan wi yeewoo nag fii ci Castor nañu bu baax ni jàngoro bi di lawee tamit yokkute kaaw communauté yi ndaxte marché Castor dafa bëri ay doomi aadama yi fay ñëw dugg beeg génn bi dafa bëri ca noonee sax la ñuy woo ki nga xam ne moo di seen maire ngir mu wut ci ay saafara ci waxtu yi nga xam ne marché bi moom la war a tëj Fatoumata Diallo te Kolda ki nga xam ne nag moom mooy cas positif moom daal dina wér dina génn sa hôpital li nga xam ne rek moom mooy génn hôpital démb loolu nag euh, médecin chef bi moom moo ko xamle wax na kat it fi mu toll ñi nga xam ne kat lañ jotoon a ñoom ñu ngi am tan bu baax docteur Yaya Ba yemul foofu nee na kat nañ gën a wéy di sàmmonteeg cet ak li ni mel ñu déglu ko ci micro Moussa Dramé ñi nga xam ne ñoom ñoo amoon feebaru coronavirus bi te ñu hospitalisé leen fii ci hôpital régional bu Kolda. juróom-ñaar la ñu. sept ci juróom-ñaar yooyu am na ci kenn koo xam ne wér na defal nañ ko ñaari contrôle yu négatif wér na. depuis ci alarba bi ñu génn euh, commission psychosociale mu ngi koy toppatoo def liggéey bi ci war euh, CRG daal di toppatoo xool nu ñuy def pour nga mën a dellu ci sa kër ñoo ñi fa nekk juróom benn yi ci des aussi seen wér yaram mu ngi jëm kanam ñoom ñett ci région Dakar lañ jóge dañoo jóge woon Libéria di ñibbisi ci lañ leen jël ci frontière bi saytu seen wergu gu yaram fekk ñu ngi am feebar te tamit amoon na fukki yoo xam ne dañ leen confiné woon ci Vélingara ñoo nekkoon dañoo xawoon jege juróom ñaari malade yooyu ñooñ tamit dañ leen saytu ci fukk ak ñeenti fan amuñu benn màndargay feebar bi mais yemuñu ci loolu ñu defal leen tamit analyse ku nekk ci ñoom am na ñaari analyse yoo xam ne yépp dafa négatif moo tax ci juróom euh, fukk ak juróom benneelu fan bi ñu daal di leen génne loolu tax na léegi foofu ci Vélingara waxtu bi ñuy wax ak nii amu fa kenn ku ñu fa confiné mais liggéey bi mu ngi continuer ci biir euh, communauté bi euh, tamit ci frontières yi li équipe yaa ngi def liggéey bi muy police muy gendarmerie muy suñu agent yi muy également suñu relais communautaire yi bàjjenu gox yi ñëpp ñu ngi ci recherche active comme recherche passive képp ko xam ne gis nañ ne que da nga nekk ci situation boo xam ne war nañ saytu sa wér-gu-yaram ñu ngi koy wax équipe de santé ñu ngi def liggéey boobu ba tey ñu des ci wàllu woowu ak tamit xeex bi ñu xeex ak Covid bi ak force de sécurité yi ak lëkkaloo ca conseil municipal bu ñàgg nekk fële ca Sédhiou point de passage yi ci wàllu fi ñu jégaloo foofu nag mu fi jël ay matuwaay ñu jéglu ci loolu ki nga xam ne rek euh, moom moo nekk yoro mbaalo mu indi ci ay leeral ci micro Moussa Dra. na nañu ay dispositif bu am solo. ñu installé ci long de la frontière. dama waxoon euh, chef militaire bi. na fexe ba au moins ñu identifier. voie de contournement ñu am ci commune Nianga. bu jógee Guinée Bissau dugg Sénégal wala Sénégal dugg Guinée Bissau ñu jël ay disposition bu mat ci cantonnement militaire de Bantangel déposé nañ foofu un dispositif yóbbu nañ foofu ay carton madaar ay saabu ay eau de javel gel même dispositif yooyu la ñu jël yóbbu ko encore Sarekunda nga xam ne foofu tamit frontière la nekk mais maa ngi gërëm en tout cas médecin chef maa ngi gërëm préfet maa ngi gërëm suñu infirmier bi ICP bi maa ngi gërëm suñu AFP yi frontière pare nañ jafe-jafe lu am c'est commune de Tankanto commune de San Koli commune de Karantaba ñu point comme point stratégie nga xam ne foofu la ñu war a samp au moins benn dispositif bu fort faire halte au Covid 19. commune bi leen dotalee benn terme place formé suñu ASP yi. ak matériel bi yëpp. ñoom actuellement tous les matins ñu ngi charrette ne ñun amuñu ndox. amuñu forage. amuñu courant. amuñu dara amuñu marché amuñu garage. amoo liggéey doo xëy doo def dara ñu ne dangay nekk sur place. bu fekkee moo jëluñu ay motukaay yu nga xam ne pour ñu soutenir suñu population day met moo tax ma ne leen nañu toog waxtaan ñu def benn virement de crédit ñu uti au moins vingt tonnes de ceeb ñu soutenir population ñu ngi gërëm président de la république effort lu mu jël mais boo gisee par exemple commune de Nianga foyer lu ñu am les ménages lu ñu am ci commune de Nianga Nianga nga xam ne dem na ba mille ménages bu ñu dee joxee par exemple les six lu ñu des nag beneen problème la ñu def au moins un virement de crédit ñu am au moins vingt pour ñu soutenir en tout cas suñu population ñu développé une enveloppe de un million pour au moins les produits pour le dispositif un million un million cinq cent pour les médicaments pour le poste de Euh, kuréel gi di mouvement des anciens volontaires du maîtreship nag indi seen euh, dimbal ci wàllu xeex Covid 19 bi Adja Aminata Mbengue Ndiaye mooy secrétaire mouvement bi ñu déglu ko mu initial ci micro Aji Fatou Bari. donc am na ñu nekk si ñun ñoo xamante ne nii dañoo dem diggante euh, rond-point Sam Diop marché Tilène mooy Médina bi dem foofu noonu waxtaan ak askan wi jox leen ay butéelu gel antiseptique jox leen ay gants ak ay masques. pour jàppale leen. joxe nañ euh, cent bouteilles gel antiseptique boo xam te ne bu nekk un litre la joxe mille gants joxe mille masques li tax ñu choisir euh, ak si Médina mooy dafa nekk foo xamante ne nii ba léegi nii dafay. am ay nit yu bëri yoo xam te ne dañ koy utiliser dañ fay dañ fay nekk en tout cas dañ fay jaar yoon la boo xamante ne ni ku nekk duñ fa jaar donc loolu moo tax ñu changer ko bu fekkee euh, décentralisation bi moom dañ ko def parce que booy xool euh, cas coronavirus nekkul Dakar kese donc c'est partout dans le Sénégal Sénégal bi yëpp la et en même temps ñu ñi nekk ci mouvement yi am na ñoo xamante ne nii ñu ci région yi ku nekk tey jii nii ci sa gox di nga fa def liggéey boo xamante ne nii mooy tax tey ñu mën a wax ne que contribuer nga wala jàppale nga ci xeex foofu coronavirus bi mhm. et en même temps ñun li ñu xalaat defaat ko comme beneen activité mooy tey jii nii képp koy génn jëlu si boo doxul di nga jël oto donc li ñu xalaat mooy ci transport urbain yi nga jox leen te ñoom ñu recevoir nekk jox la masque jox la gel nga xamante ne ni client bu dugg dina mën a utiliser gel antiseptique bi nga xamante ne ni ñëpp lañu mën a utiliser transport en commun mooy ak xel mu dal. ba tey ñu wax ci wàllu ndimbal yooyu ak tamit xel général Euh, bu cene euh, ba tamit dugg na loo xam ci xeex bi ñuy xeex euh, Covid 19 Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck na jox na kuréel gi ci topp wàllu woowu ca Thiès lu toll ci juróom-benn million ñetti million nag xaalis la ñetti yi ci des nag moom ay xeetu jumtuwaay la yu ñuy raxas loxo yeeg yu ni mel Serigne Baye Diop moom yor kaddu gi ñu déglu ko ci micro Babacar. mbir mi nga xamante ni nii ab mbas la bu dugg ci àdduna bi di rogalaat ba agsi ci sunu réew ñuy ñaan yàlla mu jeexal ko ak jàmm te bàyyi nu fi ak jàmm. biñ koy dégg kilifa yëpp a ngi doon ñaan kilifay aada yi doxe ci président de la république ba ci ñoom ñii ku ci ne matuwaay yi mu war a jël mu ngi ko doon jël bi yàlla dogalee mu dugg ci réew mi mboolem matuwaay boo xam ni waroon na président de la république pour mu yëkkati ko jëmale ko ci askan wi waaye jiital ci ay waajuram kilifa diine yi mel ni xalif général bu Thiénaba ak ñu mel ni ñoom la leen ca waroon ñoom ci wax ak askan wi ci kàddu président bi mu yëkkati woon la leen ca waroon yëpp jël nañ ci seeni matuwaay wax ko askan wi ba mu mat sëkk macha allah bi ñu jógee ci loolu nag sëriñ bi askan wa mu dëkkal ak fub taalibeem nekk fa loxoom joti yëpp dimbali na leen kem kàttanam waaye mu ni responsable bu toll ni moom di social war naa yëkkati ndimbal indil ko président de la république bi nga xamante ni nii moom la yan bi gën a diis tege ci mbaggam tey jii te réew mi yaakaar ko ci mu yëkkati woon nag teraanga bu toll nii di matériel bii ngeen di gis toll ci 3 millions boole kook enveloppe gu 3 millions bi mu toll ci 6 millions mu ni woon nañ ko yëkkati indi ko fii ci gouvernance jox ko monsieur le gouverneur Serigne Mouhamad Moustapha Ndaw ngir mu jotal ko président de la république mu dem ci askanu Sénégal jiitu ci nag loolu muy ñaan yàlla barke alxuraan barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ci dogalu borom bi ak rafetu xolu jullit ñi ak nit ñu baax ñi yàlla na tàbbi ci lii ba lépp nekk ak saafaraw ci àdduna bi yëpp waaye rawati Sénégal gi nga xamante ni nii ci lañ nekk di ci noyyoo ak fépp foo xam ni doomu Sénégal nekk na ci àdduna bi yàlla yàlla gaaw génne ko fi te bàyyi na fi nu bokk ci ñu koy nettali bu jeexee ak jàmm. ministère de la santé li nga xamante ni euh, yëkkati na ko jëmee ko ci askan wi tukkee ci ñi nga xamante ni mooy seen ministre di médecin yi nga xam ni ñooy dimbali askanu Sénégal ci wér saytu seen wér gu yaram. depuis feebar bi duggee Sénégal ak léegi wala mu door ci àdduna bi ku ne gis na ni bis bu ne ci la télévision yi ak rajo yi di yendu ci la ñuy xëy macha allah mu nekk ay conseils yoo xamante ni tey jii waxuma mag ñi waaye ndaw lu gën a tuut ci kër tey boo ko laajee yan mooy ay consignes yu ñu joxe pour mu musal nit ci feebar bi muy feguwaayam xale boobu mokkal na ko tey sëriñ bi nag mu ngi ñaax ñëpp ñu dund ci yooyu tegtal yooyu nga xamante ni joxe nañ ko ngir ni aaru moo gën di faju kon mu ngi ñaax ñëpp nañu topp ndigal yooyu te bañ cee mànkil dara bañ caa xeebal dara xam ni lu sunu borom digal la yonent bi digle ko ñoom ñi ñu soog koo digli ba te ñu des wàllu teewoon na fa nag gouverneur bu euh, bu Thiès di Mouhamadou Moustapha Ndaw moom kat mu koy rafetlu bu baax a baax ñu déglu ko ci micro Babacar Ndaw malgré couvre-feu bi ñu ngi constaté ne nit ñi ñu ngi dox si mbedd mi mais surtout lu weer si couvre-feu bi si bëccëg bi ñu ngi constaté nit ñi ngi dajaloo ba tey xeetu dajaloo bu nekk nag lañ bañ xeetu dajaloo bu nekk lañ bañ te ñu ngi constaté nit ñi ñu ngi dajaloo ba léegi ñu dimbali ñu si wàññi dajaloo boobu ñuy def. ñu dimbali ñu tamit si di takk masque bi te jot na fi ne nii ku nekk booy génn ngay dem takk masque boo xoolee takk masque boole Babacar takk usine na ko defar mais bii tissu la boo xam ne da nga koy fóot di fóotaat am na sa produit boo xam ne boo defee journée bi mu yàgg nga bës ko si mu désinfecté ko nga mun a continuer waat comme sa masque donc moo war leen rek masque yomb na yomb na du rek bi xam ne bële lañ defar muy masque chirurgical bi du rek beneen masque yi MPD yi ñuy wax mais bii tam nga jël nga def si lu set def ko sa masque di ko fóot bés bu nekk am si sa ñett nga ko utiliser si journée bi di ko fóot bés bu nekk je pense que tamit lu si baax la kon nag nañu commencé sol masque surtout bu ñuy génn war a doxi loo xam ne dox yu farata la dox yi farata nag laa wax wax ma di dox nii si caaxaan wala di def leneen loo xam ne du li xam ne mun na mën nga ko mën na ñàkk képp koo xam ne nga war a jóg ndax farata war a joxe jóg nga sol sa masque takk sa masque dina si baax je pense que dina ko wàññi bu baax a baax gendarme fu nekk muy topp ku nekk policier di topp ku nekk bu yàggee dootul neex mais nag ku nekk na nekk gendarme boppam nag ku nekk na nekk policier boppam mooy li ma la war a sànq dinañ ci yegg si ay mesures yoo xam ne bu boobaa dootul neex parce que bu yàggee di at gën a yàgg cas communautaire di gën a bëri dañuy xëy sa ba ne joxatuñ benn autorisation kenn circuler par exemple. ko amul oto boo demee di nga toog hmm? bu boobaa te bëgguñu yegg foofu mun na yegg bu mesure de confinement total xëy na mun nañu mun nañ bañ a yegg foofu mais ñi tamit confiner seen bopp. mobiliser sa bopp mooy li xam ne da koy dox te du farata nga bàyyi ko toog grand place di bëlot wala grand place di dem yi nga bàyyi ko dajaloo di football wala dajaloo di basket nga bàyyi ko voilà ku fexe koo xam ne mën nga bàyyi dem juma je pense que nga mën a bàyyi football wala nga mën a bàyyi basket wala nga mën a bàyyi leneen ñu toog la boo demee bay génn ba bëgg a génn nag te mënoo ñàkk génn nga takk sa masque. ñu wax tey ci wàllu xibaar ak Covid tamit li nga xam ne rek mooy li ñuy euh, rumandaat. bon def naa la ñu yokk wur fa bi jëlee ko nag juróom benn waxtu ci ngoon si ba juróom waxtu ci suba si loolu nag kàddu yi Macky Sall moo ko mu ngi wéy di am ba léegi ci waxtaan xam seq na ko ak France 24 ak RFI dañ ci ànd ak Amadou Moustapha yaatal couvre-feu bi diggante 6 heures ci ngoon ba 7 heures du matin président Macky Sall na ko xam xamle niki tey bu muy seq ak waxtaan ak waa RFI ak waa France 24. certainement avec. Euh, waaw gis naa ne daal couvre-feu euh, bi mun na am daal di koy yokk diggante huit heures ba sept heures du matin bu fekkee ne ba léegi li ñuy xeex jëm ci wàllu coronavirus bi ak surtout transmission communautaire bi deltul ginnaaw. ensuite d'aller vers des mesures euh, plus fortes. ci noonu sax muy dëggal ne fu mu nekk nii Sénégal am na ñetti cas yoo xam ne jot nañu faatu ci coronavirus bi le ñu ngi may xamal ne amoon nañu ñetteeli cas boo xam ne euh, mooy ki faatu ci coronavirus bi rax si dolli président Macky Sall doon na it ci coow li nga xam ne fu mu nekk nii mi ngi lëmbe askan wi ne mu jëm ci wàllu kopparu bi ñu dindee ceeb bi li liñ ciy laam-laamee li mu gis daal moo di wax yooyu le waxu naxa saxandang la te sax moom fu mu nekk nii ngir fay coow li taxawal na benn commission ngir saytu mbir mi ni mu ko diggee woon. ce qui est regrettable man daal jàpp naa ne coow loolu coow naxa saxandang la jamono ji nga xam ne ñu ngi xeex coronavirus bi ñu ñu andil euh, ay coowu euh, transport euh, vivre loolu bu a baax noonu sax boo xam xam ne dinaa ci def ay euh, kàngam yu nekk ci wàllu kujje gi ngir sax ñu gën a mën a saytu lépp jëm ci wàllu leeraange bi. personnalité indépendante qui va le fànn président Macky Sall di wëy di wax ne réew yu am doole yi. dañoo war a bal Afrique bor bi nga xam ne mi ngi tegu ci kaw ndoddam. la maladie frappe. bor bi moom dañ ko war a man gëm naa ne daal koppar gi lu mu bu dee ay milliards milliards la war nañ ko a baal as rawatina jamono ne dañoo jànkonteel xeexu coronavirus bi de. des pays donateurs comme ceux du président Macky Sall bu mu jeexal kàddoom jot na xam ne ne Hissène Habré moom dañ ko génnee ci kaso bi ndaxte ay mesures humanitaires la ngir bañ mu daal di fay jëlee feebar bi di coronavirus waaye jot na xam ne ne bu coronavirus bi jeexee Hissène Habré moomule dina dellu te ndungu siin. Amadou Moustapha Dieng ñu des ba tey ci wàllu xibaar ak wax ci ministre bi ñu dénk nag wàllu équité sociale ak développement communautaire doon def conférence de presse démb di gindi askan wi ci li nga xam ne kat moom moo jëm ci wàllu coow li am ci wàllu joxe ceeb bi oto yi koy yóbbu Abdou Aziz Diop bu vice coordonnateur bi am na ci xaar ne kat li ëpp solo yëpp moom mooy ñu tënku ci bonne gouvernance Abdoul Aziz Diop ci micro Babacar Sow. ku tontu ci sa laaj mooy ci coow li nga xam ni dafa juddu fan yi jëm ci wàllu yorinu fonds yooyu ñu jëm jëmleel Covid 19. mu nekk loo xam mënoon a ñàkk nekk loo xam ni itam gënul yaakaar naa jàngat bi ñu ci war a def mooy ñi ko seq ñëpp ku ne war na xool taxawinam mais rawatina ña nga xam ni ñoom lañ ko dénk ñu war a saytu fonds yooyu ba mu àgg fa mu war a àgg ñooñu li ñu sént ñoom mooy yorin wu sell mooy yorin wu leer waaye du ay tontu li nga xam ni tey moo jàmp di farata yaakaar naa mooy ñëpp ànd pour fexe ba feebar bi bañ fee law paagaagal ko ba nga xam ni mu dem ba zéro cas la ñuy wax sa loolu pour mu am il faut que citoyen yëpp ànd mesures yi nga xam ni tey annoncé nañ ko digle nañ ñëpp respecté te il faut état bi aussi foofu gën fa dugal loxoom autant jàppale ci wàllu dund gi baax na waaye jàppale aussi askan wi ci wàllu intrant yooyu muy jëm ci masque lu jëm ci gel lu jëm ci ay gants ba pare nit ñi mën a toog seen kër loolu farata rek moo leen di génne yaakaar naa suñ defee loolu mu geste barrière yooyu am comportement boobu bala nga naan naam ne fa loolu mooy li gën a li gën a jàmp aussi mooy fexe ba acteurs yi aussi tàppe xol yi gën a wóolonte war nañ ko samp surtout comité de pilotage au niveau national ñoom ñu saytu force Covid 19 bi mu nekk comité bu indépendant ñi ca war a nekk nekk ci waaye surtout nag au niveau local foofu la ñuy séentu ñu moytu coow li nga xam ne dégg nañ ko au niveau ci kaw a kaw ñu fexe ba am à la base bu ñuy séddale wala bu ñuy cible fexe ba comité yooyu ña ca nekk nekk ñu maandu waaye aussi ñu dugal ci benn principe principe bu conflit d'intérêt ña ca bokk képp ku leen jege wala kuy seen ñooñ bañ nekk bénéficiaire direct ndax mënu nekk juge et partie lépp loo xam ni jublu nañ ko ci fonds yi ndëflaay la rek waaye daanaka du l'essentiel essentiel bi mooy fexe ba faagaakal feebar ba tey ñu des ci joxee ceeb boobu ak tamit eh, coow li nga xamoo ci am parti bii di réew mi nekk ci Tivaouane nag jox nañ baaraam jox nañ baaraam tuuma kii di eh, ministre bi di Mansour Faye ñaan di sekk ne nañ kat moom rek moom moo tax ba ñu xewoon ci Covid bi xàcc la doonul da war a nag naxasaay dañ ci ànd kii di Babacar Sow séddale bi nga xamee ni ñu ngi koy defee ndimbalub covid 19 jëwriñ jore wàllum développement communautaire yàq na liggéey bu nga xamee ni njiitu réew mi tàmbali woon na ko ginnaaw bu nga xamee ni dajale woon na doomi Sénégal yépp ngir xeex covid 19 ki wax li ni mel moo di Bassirou Ndiaye jëwriñ jore lengéey ci parti réew mi ci département bu Tivaouane suñ sukkandikoo ci li muy nee na Mansour Faye warul woon sukkandiku ci li nga xamee ni mooy ay considération politique ngir séddale aide covid boobee loo xam ne li ñu ngi koy ŋaññ ba tëdd ci naaj bi Bassirou Ndiaye jëwriñ ji nekk ci bopp parti réew mi ci département bu Tivaouane lañ ciy déglu damaa bëgg na dikki ci aide bii nga xam ne ñi ngi koy jëme ci famille yi nga xam ne dañoo loru te gouvernement bi war leen a jàppale gouvernement bi nag président Macky Sall dafa am nu mu tàmbalee woon tàllal loxo opposition bi yépp ñooñu ànd ak ñoom pour jàpp jàpp ci waa Sénégal yépp àndanoo nekk benn xeex Covid 19. waa nde ndimbal lii de nii ko Mansour fay tàmbalee awul ci yoon ndax ndimbal dañoo wax ni liste bi ñu jëkkee def dañ koy def ci list registre national unique loo xam ni ñi aman bourse familiale ñoom la ñu jëkk a jox ñooñee nag may xamale ni bu passé première génération ba leneen lu ca toppan ci politique politicien lañu ko defee militant APR ñoo nekk ci list yooyu APR lañ ci li gën a bari ñi ngi def politique boddidente te loolu moom mu may yokk ci nii mi ngi ñaan ñu ubbi luuma yi nga xamee ni fa la ñuy jaaye jur gi ba benn waxtu ci bëccëg sax ngir mën a tax ba ñi nga xamee ni ñoo ñi nekk ci dëkki kaw yi am lu ñu dundee Tivaouane Babacar Sow dañ ca jokk ak yéen pour su defeem ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre vingt ba diamètre quatre cent millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moom mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy loo ci soxla rek ñu defal la ko ba noppi dañu lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bii bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo compagnie sénégalaise industrielle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 ñoo leen di may seen revue de presse Ndeye Mariam Ndiaye asalaamaaleykum mbokk yi déglu dalee nag jàmm jëwriñ ji di Mansour Faye démb mi ngi doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi ngir indi ay leeral jëmale ko nag ci marché bi nga xam ne nag moom lañ doon amal ci wàllu ceeb bi ak tamit lépp lu jublu euh, ci wàllu yóbbu ga ñu yóbbu ci biir réew mi julikaay bi di Sud Quotidien di ñu xamal ne ginnaaw coow li nga xam ne nag moom moo juddu ndaxte dañ doon joxoñ baaraamu tuuma ne daal dañoo daal di jël marché boobu daal di koy jox kenn koo xam ne dafa xaritoo lool ak kii di Mansour Faye wala boog ak nit njiitu réew mi wante dafa mel ni ne démb jëwriñ ji di Mansour fay loolu yëpp daal dina koy jël teg ko ci suuf wet dina ko ba mu set wecc ndaxte moom daal dinay xamle ne marché gi moom nu ñu ko waroon defee rek la ñu ko daal di defee maanaam daal amul jalgati amul luubal amul lenn loo xam ne nag tey ji daal wax nañ leen ko mën a toppee ci li nga xam ne tamit moom moo jublu ci dund yooyu nga xam ne dañu ko war a yóbbu ci biir réew mi Mansour Faye di xam le ne amu ci par par loo moom sax xamul kan mooy Diop si la mu xam moom mooy kërub liggéeykaay bi nga xam ne moom la jiite te bokkoon na nag nag ci ñu bëggoon ñu tànn leen ngir ñu daal di yóbbu li nga xam ne moom mooy dund gi ci biir diwaan yi kon Mansour Faye daal di gis ne coow loolu nga xam ne tey jii moom moo juddu jëmale ko nag ci wàllu gi ni mel moom gisul woon sax lan moo ko waral lool sax moo tax ma ngay woo waa société civile ngir nag ñu jël seen xel seen xalaat def ko nag ci li nga xam ne daal moom moo am solo maanaam daal ci xeex bi nga xam ne ñoo ngi koy xeex jëmale ko nag ci li nga xam ne de moom mooy coronavirus wante nag di coow ak yëkkati ay kàddu ci wàllu seddaleem ceeb ak tamit ka jox marché gi moom nee na loolu daal jëmewul kër kanam Birahim Seck ci biir colikaay bii di critique du ñu xamal ne moom fu mu nekk ni sax la mu doon xaar ministre daal di fësal dafa mel nii ne waxu ci dara te sax moom nee na gisul Mansour Faye lu mu fi wax nag tey jii daal yi ñoom nag la ñu jàppoon démb ak barke démb colikaay bii di critique mi la ko gën a ŋànk ndaxte daal la ñu gis moom mooy ne marche bi moom nañu ko doxalee moom jaarul yoon ñu ne déet ni waaye sax ñu ngi ñuy xamal ci biir colikaay bii di laas ne kenn ci ñi nga xam ne nag démb ministre Mansour Faye ma nga leen doon lim ne daal bokk nañu ci ñi nga xam ne dañu leen a jébbal ay marché daal dinañ ciy lim nag ku ci tudd Mouhamed Dieng moom sax moom moo jiite groupe Bambouk wante jolikaay bi di laas ngi ñi xamal ne moom responsable APR la fële nga xam ne de moom mooy ca Koungheul li yamba des daan jiitu réewum Sénégal di Macky Sall moom daal dina gis ni coow loolu nga xam ne nag moom la ñu fi daal di amal daal munoon na ñàkk ndaxte fu mu nekk ni li ñu war a def daal moom mooy xeex ci ni mu waree lépp lu ak feebar bii di di cas communautaire yi nga xam ne ma ngay tàmbalee di bëri cas communautaire yooyu aujolikaay bii di waa Grand Place dañoo xamal ne jaaxal na askan wi jaaxalit na njiitu réewum euh, Sénégal ndaxte aujolikaay euh, bii mi ngi ñuy xamal ne am na ci lu tolloog fanweeri nit yoo xam ne nag dañoo am li nga xam ne de moom mooy coronavirus te kenn xamul fu ñu leen ko wàllee rax ci doole ñooñu ñu ngi nekk ci ñaar fukk ak juróomi commune yi nga xam ne moom moo nekk fii ci mim réew loolu sax moom moo tax ba njiitu réew xam ne suñu moytuwulee sax couvre-feu bi tàmbali nag ci juróom-ñetti waxtu eh, ci eh, guddi jàpp juróom-benni waxtu eh, ci suba mun na am sax ñu daal di koy yokk jolikaay bi di Vox Populi di ñu xamal ne njiitu réew mi kon pare na ngir na couvre bi léegi ñu koy ci juróom-benni waxtu ci ngoon mu daal di jeex nag ci juróom waxtu ci suba jolikaay bi di Le Soleil ne ñu yokk couvre-feu bi wala boog ñu def lu ñuy tuddee confinement total njiitu réew mi daal amul benn dogal boo xam ne nag dina ko dàq ngir fexe nag ba xeex ci ni mu waree lépp lu jublu ci feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus jolekaay bii di tribune moom sax lu mu gëm moom mooy ne suñu moytuwulee moom confinement total la ñu jëm maanaam daal réewum Sénégal moom léegi dañuy tëj askan bi yëpp kenn dootul génn ci sa kër ba keroog nag ñuy xeex ba daan feebar bi nga xam ne nag moom mooy coronavirus feebar boobu sax jolekaay bi di le soleil du ñu xamal ne di ne faat beneen nit ci biir jolekaay bii di libération suñu naatango yi du ñu communautaire la woon moom sax mi ngi amoon ci lu tolloog juróom-benn fukki at ak ñett te dafa amoon sax ay jafe-jafe ci wàllu noy yi moom kon moom mooy ñetteeli nit bi nga xam ne nag feebar bii di coronavirus daal dina koy yóbbu jeexalee ko ak colikaay bii di stade tey jii nag di ñëwaat ci Henri Camara ñu daal di koy tuddee Mister Record suñu naataango yi du ñu xamal ne Henri Camara ku ñu ràññee la nag ci ñi nga xam ne de ñoom ñooy football kat yi ndaxte moom ak Sadio Mané ñoom ñoo daal nekk daal ñi gën dugal ay but ci coupe d'Afrique des Nations rax ci doole tamit lu ñu ko sélectionné ak tamit bu ñu dugal moom bokk na ci ñi nga xam ne nag moom moo raw fii ci biir Sénégal te it moom dong moom rek de moom mooy sénégalais bi nga xam ne nag mës na dugal benn but en or euh, ci wàllu mondial lii moo nekkoon ba jullikaat yi li gën a fës ci biir jullikaat yi ñu leen di ñaanal njeexitalu bés ak jàmm. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC HD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre vingt ba diamètre quatre cent millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange loo namm ci tube orange wala télécom fekk ko ci ñun nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune amit boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy loo ci soxla rek ñu defal la ko ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy sexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33